أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ngi leen di ziare te di leen balu àq te di leen balu àq di ñaan suñu borom defal ñu tawfeex ak ngeneel ci koor gi ñu nekk nangul ñu ko laqal ñu yàq jaarut joxal ñu ko addi ku tedd gi ni ko sëñ bàyyi laa ji waxee rek ñoo ngi jégalu ci kàddu yi xanaa dañuy dalal suñu jëwriñ ndax ku miin rajo xasida online xam ni sëñ Ibrahima mooy mooy jëwriñ kon bu toog si jëwriñ daanaka si kàddu na day day taxaw wala gàtt xëy na gën a jotal suñu def rek mooy dalal na ci këram ndax fii daanaka ci li muy yëngu moom la doxal fii ndax damay faral wax ne wax neex na waare neex na waaye dafa def si jëmm ba ku la gis waaw moo ko dàq yaakaar naa ko xool Cheikh Ibrahima xam ne looloo gis moom kon ñoo koy ñaanal fan bu dëgër yaram ba mu dund ci Cheikhul Khadim li ci liggéey euh, nekk ci weeru koor tedd waaye tey dajee doon beneen bis boo xam ni bis bu taarix dul fàtte la muy fukki fan ak juróom-ñaar weeru koor te yaakaar naa ni jaay yéeg nañ ci guddi tàngoor jaadu na ndax ku dellu ci taarix xam ni bis tey jii la woon ak lu ba dër mu doon weeru koor ñi taxawal lislaam ba tey ñu mën cee tey jii lañ doon xeex ñu dem ci xare boo xam ni danga bàyyi sa njaboot bàyyi sa alal tàggoo xamoo da nga dellu si wala déet biir ne na ni parce nga ni da faatu boo demee waaye yow daal jaral na la ngir lislaam taxaw tey la sa bakkan tey la sa alal ngir lislaam taxaw Seexul Xadiim bu ñu koy defal waxtaan mel nii bu duggee ca baytam boobu mu doon wax rek saaba xam ngeen ni kon jaadu na ci bisu yawmu badrin mu tombeek dimanche ñu nekk ci kër Sëriñ Tuubaa di fi waxtaanee waxtaanu yow ñu war cee jànge lu bari ndax ku tedd ki da daan wax ni murid yi maanaam taalibe yi de saabatu rasul ñooy seen bàyyi ci diine ku am sa bàyyi nag war nga woo doon war nga woo doon it waaye dafa bari doon la ñuy def waaye du doon suñuy bàyyi ndax ku fàttali ko yow ba tey te ñun laaj ñu nu bakkat ñëw téye ci daayira bi rek képp lañ la sax alal ji xëy na boo ko amul mënoo koo jëm waaye ñëw ngeew dong la des waaye ku xool mbooloo mi xam ne waroon naa mën a am lii waaye kenn ku nekk danga dem su ngay dem di jébbalu kenn deful buum ci sa baat kenn ne Sëñ ko fi wutu doy nañ la jox sa bopp nag moomatoo dara ci suuf faaw ñuy jaayante faw ñuy bàyyi dara di def dara ndax jamono ji xat na rawatina fii ñu nekk mu yooru waaye boo bàyyiwul dara def dara daanaka li la war a la war sa digg ak sëriñ bi doo ko ma dara ndax damay faral wax ni ñun dañoo jox benn dañu laaj ñaar dañoo andi ci àdduna ñu war fee dund am luñ fi war a def am luñ fi war a bàyyi waaye war fee waajale ëllëg mu yomal xiyam te yomal xiyam nanguwul accompagnement dangay ngay fret muy dem yomal xiyam nanguwul gàddu see bagage di léegi nga koy jëf boo demee man ko fa fekk Sëriñ daan wax ni lu ngeen di woy bitim réew nee na ñu ne ko ab bitim réew di xëy mooy réew mi nga cosaanoo nga jóge fi dem meneen réew moo xam ne xëy na bokk leen aada bokk leen cosaan bokk leen i kàllaama mun leen nuur na ko de waaye du loolu nee na àdduna foo fi nekk yaa ngi ci bitim réew ne bitim réew nag boo fa nekkee maanaam nee na àdduna boo fi foo fi nekk rek yaa ngi bitim réew boo fi jógee nag jëlee fi maanaam yóbbu la barsàq nee na yaa ngi nee na bitim réew mi boo fa nekkee da am fulla ju toll ni loo am rek yóbbante ci sam réew nee na bu ko defee boo ëllëgee bu ñu la jëlee bitim réew ba delloo la ci sam réew boo yóbbaaliwul dara la nga daan yóbbante ñu teral la kon mel ni ñi nga xamante ni buñ ko xoolee ci zaahir si rek fii ñu nekk daan suñu doole di am léeg-léeg ab wala ñu am dara ñu yónnee ko suñuy mbokk ah boo demee bu dee bu dee ay gor la ay gor lañ li nga daan def boo ñëwee boo yóbbu dara dañ la teral àdduna ak alaaxira noonu la dem feek dawalum sunu jaamu yàlla gi ndax li may faral di wax léeg-léeg euh, yeneen weer yi ñëw nga ni diw wala nga woo nit ni ko koor gi di baax na tey wala tey de bisu koor la ci koor gàtt ngay mun la maa ngi xaar bu mag te bu mag bi du ngóora obligation la dañ koo gàll suñu bopp bu mag bi moom sañ ta la julli juróom yi sañ ta la du ngóora mais naafile yi ci la nit ñi rawante koor yu gàtt yi ci la nit rawante saraxe di def lu baax ci nit waaye bu jàppee ni jaamu yàlla julli juróom yi rek la ak weeru koor yi ak aj Màkka ak natt asaka doxuñu duñ dox te sëñ bi da daan wax ni am xëy bu neexulee dañoo war a fëx jëm ci ngont bu daaw kenn du xëyal kenn du xëyal la wax nee am xëy bu neexulee dañuy fëx jëm ci ngont ginnaaw kenn du xëyal te xëy daanaka boo ko misaalee mi ngi toll ci diggante fi ngay amee doon tuut tànk ba nga amee daanaka fanweeri at lu ci ëpp dañ laa yor mënuloo sa bopp dara defaloo kenn dara daanaka li ngay defal yàlla sax boo doonut aw wàlliw wala nga dend ak maanaam nijaay ju baax walla ndey ju farlu wala baay bu farlu li ngay def daanaka yëfi gone lay doon léegi sa genn wàll dund jàll te xam ngeen léegi néew na ko dund juróom-ñaar te boo xasee weesu fanweeri kon sa xaaju dund dem na foofii fi la la la la seytaane soxla fi la waaye fi la la suñu borom nga war a jaay sa ndaw boobu jaay sa taar boobu jaay sa alal jooju jaay sa doole jooju koo koy jaay suñu borom te moom di nee na ñi nga xamante ni dañuy taxawal julli di wóor di natt asaka di jàng téere bi nee na ñooñu de lañ jaay seen boroom du lamb te boo dikkee daay Monza daanaka loolu rek lañ fi doxal kon na doon ab soññee ci ñun bu mu doon mukk ngóor bu mu doon bokk ñu gis suñu bopp yaakaar ne ñoo ngi defal suñu borom dara te lépp li ñuy defal suñu borom la jëm si waat suñu jaamu gii la ko sellam ga suñu ñàkk jaamu gi xajamalu kon lu waaye def rek daanaka ci sa bopp nga ko jëmee wat kon loolu nañ ci farlu bu baax a baax li may def rek mooy euh, benn xisa bu ma gis ci téere seen son bi muy xolatu xëy ni muy li ñu wax ni sib nañ ko ci weeru koor te xam naa ni ñu bari lënt nañ ko rawatina suñu mbokki jigéen ndax bi ci jokk nee na sib nañ ci koor góor guy jaxasoo ki jigéen maam di toog ci ci jotaay jigéen mbaa mu leen di xalaat kazalika jigéen noonu nee na sib na maanaam parfum sib nañ ko sib nañ suuru mbaa mu lay xeeñ sib nañ nee na moskin moskin loolu bari na ci soxna yi moskin nee na sib nañ ko ak mos ndoxum ndogu nee na sib nañ soccoo socc bu tooy donte bu dàkkaandeeg we rek la te bari na bu dee soxna ji soxna yi bu ñuy togg léeg-léeg ñu mos dem mel ni luy galaxandiku waaye suñu son bi moom nee na sib nañ ko kon nag diggante fi ñuy ndogoo daanaka mën ngaa bàyyi loo ko waroon xorom boo dikkee mën nga ko xorom wala boo war a war sukkar boo nga ngir mañ a bañ yàq sa koor ndax sëñ Tuubaa dañu wax ni dani li araam da koy bàyyi li ñu sib da koy bàyyi li lënt sax nee na koy bàyyi far li lënt maanaam nga mu ne ci diggante bi nga naan daa araam ak dañ koo sib ak am déet nee bu ci warante amee rek yow far ko ba dañ nañ ko may jeexale mooy eh, ñaari xaside yu gàtt yi dafa ne fii ci ci kër Sëriñ Tuubaa gi ci bibliothèque bi benn bi fa buyitale si kafaral ak Sëriñ Tuubaa tëdd tënke moo nekk ay boobu ci ba Baqara euh, sëñ bi day wax ne ku am xaside gi di ko faral di jàng suñ borom dana la musal ci jafe-jafe àdduna nee na dana yëwal sa yëwénal sa mbiri àdduna waaye dana la musal ci noonu waaye day mujj sax nee na da ngay not yéefar yi yéefar yi te xam nga ni réew mi ñu nekk réew mu yéefar bi ci des moom itam xasida bu gàtt la sëñ Moussa Jaxate ndeysaan moo ko bindoon Moussa Jaxate Kamal mu Milan muy allahu mu jël lii lii moom it mi ngi fii benn bu ci nekk ñaari xët la ñoom ñu ngi koy wettee ko ci njëg bu jàpp ni ndax un euro rek lañ koy wettee ko te loolu day duggaat ci kër Sëñ Tuubaa gi waaye xasida gi wax ni maqaama mooy yóotu bala ngaa jógee àdduna da ko am kon na ko te un ñëpp wut mu duggaat ci liggéey Sëriñ Tuubaa mel ni jàppale ngeen daara ji te fekk seen bopp ngeen dimbali xasida yi bi ko sëñ Tuubaa bind kenn yokk rek taxul nañuy laa wérante suñu biir ndax bari na nit koo xamante ni mi ngi waxub salaatu wala am na téere wala xasida goo xam da koo denc rek baraaye ko na li ngay wax nit ki ba mu def ko ba ba mu koy def xëy na yaa ngi woon ci yeneen yaa ngi doon sax nelaw waaye bu teeyoon ñu bindal bi nañ sàkku tuyaaba tax ko tuur waaye denc mbir mi égoïsme bokkut ci muridisme nañu yaatal luy jariñ bu ngeen ko xamee bu leen hésité wala ngeen xaar wala ku leen jege na ngeen ko ko loolu bokk na ci laaj yi kon sëñ Ibrahima ñoo ngi lay dalal ci ba Touba Monde nga dimbali ñu rek ci lii nga indi xam naa bu ñu ko teewloo lu am solo la ndax jikko yu rafet moom lañ tàgge woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la Sëriñ Tuubaa damay wax ni eh, jikko yu rafet ci lañ jabal yonent bi mu war koo mottali waaye damay wax ni naar yi dégguñu ko bañ ko téyel tëlee dégg nag sëriñ suñ borom daa yebal Sëriñ Tuubaa mu dikk tasara ko ci murid murid boo gis jikko bu rafet rek la war a làmboo ba boo ko gisee doo ko laaj yow am murid nga am de gisaguñ la xam ne yow mi am murid nga xamal ni des na ñoo ngi jégalu bu baax ci kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatulah. aousubillah bismillah mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke di ñaan suñ boroom yàggal ko fi te wéral ko ak jëwriñam ji sëriñ Muntaxa Mbàkke di siyaare itam mbokki taal bi fi teew yépp naa buñ ci tuddee jëwriñ ji sëriñ Pape Diop suñ mbokki soxna yi soxna Penda Jaxate mel na ni ñépp dina dugg ci biir liggéey bi di beral cant ak nuyet ñi nga xam ne ñoom laa bokkoon liggéey bi muy sëñ ji ndax mel na ni ci biir toolab sëriñ tubaab bi ni ko sëriñ Saali waxe woon rek liggéey bi ay xeeti xeet la waaye mel na ni xeet bi ñu ci féete muy diggante jàng ak jàngale kon loolu itam ñu ngi leen di siyaare di saa itam sëriñ Ablaye Diop ak sëriñ Mbargu nga xam ne ñoom it ni mu ko leeraloon rek euh, liggéey bi nga xam ne moom la nekk muy rajo xasid online te wax dëgg yàlla xay na ñoom duñ may tudd di tudd euh, liggéey bi rek waaye li ci am solo ñoom ñoo ko yore kon ñu ngi ñaan bu baax rek suñ boroom bokk na jàppale leen siyaar itam ci weeru koor gi ni ko sëñ Ablaye leerale ndax gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne njëlbeen gi yërmande yàlla la maanaam e, muy njëggal ak suñu boroom digg bi di yërmadee suñu boroom njeextalit du gore ci sawara te nekk ci digg bi kon loolu kenn ku nekk ci noonu e, war na cee sant yàlla bu baax ngir weeru koor kenn ku ne xam na ne gan diñ koy gàttandu diñ koy dalal diñ koy gunge kon mel na nag ci dalal gi leen nekk talal gi nag kon lépp loo xam ne day rafetal koor ak di ko taaral kenn ku nekk ci noonu war na ci am ab taxawaay xam naa waxtaan wi duñ koy jàpp rek waxtaanu taalibe bi ak moroomam di feeñeel bu baax itam sunu cofeel ci yéen tey jàpp ne lii nuy def eh, noog yéen ñoo ci bokk yam ab àtte eh, xëy na nag li ñuy ñëw di teew bariwut waaye waxtu wu ne sunu xel mu ngi ci yéen te yaakaar naa ne nit ki mën naa bokk ci mbir te xëy na ñam ko bokkal duñu ko mën a gis lu bari te fekk booba ma ngi ca biir loolu yaakaar naa ne su ma juumut am na ci xeex yi xeex boo xam ne Seydina euh, osmaan wala Aliou wala Abubakar am na ci koo xam ne bi fekkoon na yaakaar la ñëwutoon ci xeex ba muy xeex xasatul Badar te teewut bu ñuy tudd ñuy teewal duñ cee boole duñ ko cee boole kon nga xam ne boo xoolee ni ko sëñ bi tuddee tudd na aw turam ca ña fekke woon xeex ba te moom jëmmam teewutoon kon nag loolu mooy wane ne pas-pas mooy li sëriñ bi bëgg ci nun kon ñun ñëpp ñu xam ne sëñ Tuubaa moo nu boole te sëriñ bi sax ñaare buy wax moom du day ñaan ne wajar xuloo banaa maanaam buy wax ne na nga lëkkale suñuy xol waxut jëmm yi ndax jëmm yi mën naa jegeñe te bu xol yi àndul dara du sotti waaye bu xol yi àndee bu jëmm yi sore itam lépp day sotti moo tax bu ngeen seetloo sëriñ bi waxtu wu ñaan day wax ne wajar xuloo banaa ala tawaddudi bila tanaason ba bayite jeex waxtu wu ne moom buy ñaan xol lay ñaan xallib xuloo banaa andil uyóob nga xam ne boo xal bu lim ci ñëw bari na lool kon nag mooy wane ne xol yi su àndee rek lépp sot ni ko sëñ allah ji waxe tem bi nga xam ne moom lañ tànnal ngir bëgg cee fàttalente suñ biir moo di xusnul xuluq xusnul xuluq nag suñ ko waxee mën na ne bépp tagg tàbb tàbb ne ci biir xusnul xuluq waaye bëgg bëggan ba danoo ñëw ci xusnul ñu am ak leeral gu gàtt rekk gun defaat ci fii nu nekk muy barab boo xam ne dañ ko sàkku moomale ko Sëriñ Tuubaa tudd ko itam daara kon loolu yaakaar naa ne moonu may sax ñu ñimi fi yëkkati kàddu ndax daara kenn ku ne xam ne na barab la boo xam ne din fay sàkkoo xam-xam di fa sàkkoo ak jub kon loolu alhamdulilah loolu nag bu ñu delloo ci taarix maa ngi dégg sëñ Mbàkke Abdurahmaan muy wax ne sëriñ Tuuba fu mu mas a samp daara la koy tudde ne na barkeem nag moo tax fu mu samp bu yàggee mu doon ab dëkk waaye moom mësta sanc dëkk fu mu masaa sanc rek daara la koy tudde waaye nag dadi moom lu mu laal mu barkeel mooy tax bu yàggee mu doon ab dëkk loolu bu ñu ci doon indi misaal boo demee ci xasida googu mu tuddee duwaawul kabiir sëriñ maa ngi koy wax naa allahuma innaka xutta zimaami ilal ardi allati ixtartaha lii wa banitu fiha daarayni li abuduka fihima bil imaani wal islaami wal ixsaan wa sammaytuhuma daaru wa tuuba tabarukan bihima fajaluhuma bi fadlika wa bi jaahi ilayhi sallallahu alayhi wa sallam saalimatayni tayibatayni amin rabbana taxabal minna innaka samiul alim kon loolu mën nañ fee dégg ne bi mi ngi ñaan boromam ne ko yow mi nga xam ne yaa ma ommet indi ma ci suuf si nga xam ne yaa ma ko tànnal kon kenn ku ne xam ne ne Touba ak Daaru Salaam sunu borom ci boppam moo ko tànnal Serigne Touba moo tax mu ne ilal addati ixtartaha lii loolu Serigne laa leeral na ko wax na ne sunu borom ne ne ko ñaari barab laa gën a fullaal ci kaw suuf mu di Màkka ak Madina seenam ñetteel Touba lay doon foo ko laaj mu jox la ko kon alhamdulilah ba mu ko ca Sénégal ñu bokkat dëkk bi Touba nee na itam li tax mu jox ko ko mooy mu di fa jaamu yàlla bil imaani wal islaam wal ihsaan kon loolu bu fekkee ñun sëriñ bi lañ yaakaar ñu am barab bu toll nii tudde ko daaray sëriñ Touba kon loolu itam mën na noo xam ne day dugg ci biir Touba waaye bu duggee ci biir Touba nag kon atteb Touba mooy daw ci biir atteb Touba nag gannaaw la sëriñ bi waxat ne la tax mu tabax mooy jaamu ko yàlla ci imaan ak islaam ak ihsaan te kenn ku ne xam ne ne Sëriñ Tuubaa ni melen ci ñett yooyu ba mu wax na ne kenn ku ne dalaa tudde doom ndax dégg ñu naa soxna mu'minatun soxna muslimatun ak soxna muhsinatun soxna muhsina sax moom dafa teel a làqu moo tax ñu bari xamu ko waaye gis ngeen gi imaan islaam ihsaan sëriñ bi kenn ku ne mu beral la aw kon moo lay wane ne woyofut nee na nag moom ba muy sanc Tuubaa la tax mu di ko sanc mooy mu jaamu yàlla ci ñett yooyu kon barab bi itam àtte boobu rek lay yore kon bu ñëwee fekk mu mel nii ñu defi jàng ay xale kon loolu itam eh, ab soññee la waaye nag li ci sëriñ bi doole itam moo tax mu ne ba tey nii moo tax tuubaa mu mel nee mu mel suñ borom musal ko ci yu bari te ab dundam woyof toyyu kon loolu mooy barkeb sëriñ tuubaa mu dellu waxaat ne bi muy sëñ tuubaa nawaytu ihyaal fard war fii watani Touba wa fii daaril minan kon nee na mi ngi samp Touba ngir dundal fi sunna loolu nag kon bu fekkee barab bu mel ni itam ñu di fi daje di fi waxtaan di fi jàngal xale yi sëñ Alaaji kon loolu ñun ñépp nu jàppaat te xam ne lii lu mënta ñàkk la ndax ku gis tuur tànk yi bu fekkee ne yaa ngi xalaat dara sa yaram war naa daw te it sow fitit wërtata mën a dal ndax gannaaw sëriñ sëy bu daana wax ne ak njaboot loo leen fàggu lu dul ak lu dul ak njub bàyyiwuloo leen lu am lu leen amal njariñ kon réew mi luñ fi man ne am yéene ak luñ fi man ne am nan xam ne ak njub rek mooy li nga xam ne moom lañ fàggul xale yi te njub googu ci barab yi mel nii rek la leen ko mën a fàggule mu dellu wax ne ijal bu yóoti kullaha masajidan wa biya bashir man yakunu sajida ñaan naa la yow suñ boroom sama kër yépp taxaw taxawaayu jàkka te kayit kenn ku ne xam ne jàkka ni ko suñu borom fonke ba wax ne képp ku ma tabaxal lu toll ak tàggam picc ëllëg dinaa tabaxal ay njënd ci àjjana te Sëriñ Tuubaa ne daaraam yépp taxawaayu jàkka la tabax loolu tam war nañ cee dégg ne barab yu mel nii buñ ci teewatee ñu xam ne ñu ngi ci biir jàkka te jàkka dafa am lu mu laaj ci sellal dafa am lu mu laaj ci nekkin dafa am lu mu laaj ci jëflante ci suñu biir kon lool itam ñépp ñëpp ñu di ko bàyyi xel mu mel ni nag euh, lii nuy def sëriñ Touba ci boppam fàgg woon na ko te suñ delloo ci xasida yi am na fu muy wax ne wazidni uluman zahudan wastixaamatan wa bi rabbi yaa rabbi sawil bondi wal xurba nga xam ne foofu dafa mel na ñi sori la jëkk a ñaanal door cee teg ñi jege ndax dana yow sunu mboroom nag ma dolli oloo man ak xam zaaxu dan gu ànd ak ak njub wastixaamatan ak teg ci siraatal mustaqim wëbbi yow sunu borom rabbi na nga yar yaa rabbi yow suma borom sawil buux di ñi sori wal xurbaa ak ñi jege kon mel na nun sori teewut boo nu gisee mënoonoo xàmmee ak ñi nekk ci kippaar ak Sëriñ Tubaa ga ci jumaay ja kon loolu fàgguteefu sëñ Tuubaa la loolu nag buñ ko fayee nan leen ko téye xam ne pexey mayunu ko waaye daa bokk ci liggéey sëriñ Tuubaa yi lim fàggul boppam ndax kenn ku ne xam ne tey fii nu toog ña ko doon nësër ban koy nësër nun ñii taxu noonu waaye teewut bi ko sëriñ bi soxlaa lijjanti ko ba teg ko ci sunu loxo kon nan leen ko jàppaat te bërki dem rek sëñ naar mi ngi koy wax muy fàttaliku barab ban jëkk ne ne te ñëwoon fa eh, ñuy wax ne barab bi de xaw naa tuuti man leen waaw tuuti na jib gis de waaye buñ ko nattalee ak barab ban leen Serigne Touba ca Ndakaaru day nga xam ne ban koy dugal diñu ko doon puus muy dugg mënta dugg te tam jaf fa jaamu yàllaam ko nga xam ne nit duuru ko def kaw suuf kon boo ko nattalee ak feenu nekk fii moo gën a yaatu teewul sëriñ ba barab booba fa la jaamu yàlla am fa gërëmal yàlla kon tey bu nee ba gën a amaat lu yaatu toll nii kon mooy wane ne liggéey sëriñ waa moom ñu ko si Abdoulaat daa waxe rek boo koy liggéeyal day féetewoo coono ba tabu bu ndam li mu bàyyi kook yow kon kooku neex naa liggéeyal li ñuy mujj nag ci tomb boobu ñëw ci temm waxtaan wi mooy lu ñëpp doo nekk fii ak sunu njaboot ndax mën na ne ñi fi nekk ñëpp suñuy njaboot lan waaye la sëriñ bi waxan ci bayitam boobu wax ne làkko rujuan yi ma jumaa yi bi xayri juin wala xataa mu laaj mag ñi ne nu ngeen ko firee ñu ne ko mbàkke ni nga ko waxee rek dina leen ko dégge mu ne làkk ñeel na la yow suñu boroom rujuwaay yi sama jofal maa jumi ànd ak samay gàtt bi xëyri jooñ ci lu dul ne xiif ñu laaj ko lu tax xiifunu mu ne bilaa xataay ndax dama muyut porlu ba porlu ba mooy fan war a fare ba mën a regg dama ko muyut kon du itam bu fekkee bëgg na nañoo ëllëg bu nuy jëfal sunu njaboot duñ xiif duñ ràpp dara du manque ci ñoom nan bañ a mooy porlo bi porlu bi moom mooy fii mooy kër sëñ Tuubaa ga mooy àll bi nga xam ne ñax mi baax na lewet na te du jeex waaye bu mooyee porlu bi rek mooy war a ëllëg nga delloo sa say gàtt te du regg ba noppi lompoñ te loolu dara jëru ko kon barab bi ne liñ ko fonkaat te xam ne xale yin fiy jàngal su sullin fi jàngul itam amaan na ñuy jàng loo xam ne bi suñ jiitaleen siin islaam su boobaa du gën ci ñoom te fiit dañuy fàtte bari ndax tey boo demee Sénégal mel lu mel ni Ndakaaru da gis boo demee ci biir Dakar da gis ñu def centre culturel français centre culturel américain waaye boo xoolee tey kër Sëñ Tuubaa yi mooy centre culturel ndax yooyu mën nga faa jaar ba jàll sax bu ñu la waxoon ne lii fii moom lañ fi bind doo xam ne loolu mooy jublu ga waaye ñoom la doon si nag jublu mooy def ko fa ngir jàngalu sin culturel jàngalu sin jikko ak sinu mela waaye mel na ni loolu Serigne Touba da leen a njoolu ba tax tey barab bii tey bu ñu fi bind al markasu as saqaafati al islaamiya wala al markasu as saqaafati al muridiya soo fi ñëwee bu ñu la waxul dara sax yow da nga koy gis di ko dund ndax boo xoolee rek di nga xam ne ñii fan leen waajale du fii kon lan bëgg na ñoom muy markas centre culturel yooyu sëñ Touba ñëwaat ci siin biir def fi lu mel noonu ba mu jaaxal leen kon loolu itam ndax su ma juumut fukki kër ak nangam mi ci état yoo xam ne lépp sëñ Touba moo ko moom kon nag loolu euh, mën naa woyof ci ab gis waaye nag lu diis la kon dañ leen jàppaat barab bi te xam ne lépp luñ fi bëgg rawante ne tut tànk yi xam naa loolu yeneen waxtaan la laaj ndax nu ñépp ñoo ci war a jàpp kon loolu liñ ko doon ubbee kon nu ñëw ci nag li nga xam ne tey ci leen bëgg na tënk waxtaan wi mu di ni ko sëriñ ji leerale mu di xusnul xuluq muy jikko ji rafet jikko ji rafet nag ragal naa neex naa jàngal am murit ndax li ci sëriñ Tuubaa jëf dinoo néew a gis ku ci jëf lu mel noonu ndax ku nekk ak say noonu juróom-ñetti at yu manqué nga jóge ci loola ñu téyaat la juróomi at nga ci loola ñu téyaat la fukki at ak juróom nga wëlbati ko sun borom laaj la na la ñi loo xalaat ci ñoom nga ne jéggal naa leen kooku yaakaar naa ne fi la jikko ci rafet yem ñu dellu ci xasiida gis ne sëriñ bi bi mu bind yaa maalikal mulki yaa man jàll an xawadin wax na ne bi mu bindee ba agsi foofu sunu borom boppam moo tee xalima ne ko loo ci teg rek ma may la ko mu ne ko irham jami al wara jéggalal mbindeef yépp waxut jullit waxut yéefar waxut doomu aadama waaye alwara moom lu yàlla bind ba ci sangalee waraa la kon yaakaar naa ne boobu dayoo ci jikko ji rafet ndax bari na ñoo xam bu ñu tolloon foofu di bind ba suñu borom ne loo ñaan ma may la ko yaakaar naa mën nga faa nekk di wax lu yaatu sax di fàttaliku lu bari waaye moom benn baat képp la irham jami al wara kon ragal naa ne kon loolu buñ cee rek war nañ cee mën a jàng ne jikko rafet li ci Sëriñ liggéey kenn mënatu ko cee dab ndax irham jami al wara moom foofu la yërmande mën a yem boo gisee nag ñu koy fàttaliwaat suñ biir mooy barab yu mel nii rawante na ànd bu mel nii di ñaan suñ Tuubaa di ko dëgëral waaye nag bokk na ci li tax mu gën di mën a dëgër mooy bu jikko yi gënee rafet rek kenn ku ne la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa moroom lépp day day day day day day lépp day mel ni eh, nan ko bëggee woon te loolu Sëriñ Tuubaa da cee def liggéey bu yaatu rey ko ci yénante bi alayhi salaatu wa salaam te gis na ne yónnente bi bi ko suñu boroom di tagg ci jikko ji rafet la ko tagg muy wa innaka la ala xuluxon te loolu gis na ne li ci sëriñ Tuubaa def ndax bari na ñoo xam ne wa innaka la xuluxon azim buñ ko doon tagg jëmmi baat bi rek la ñuy jël waaye nag mën a jël baat bi benn araf bu ne nga defaat ci fukki bayit ak ñaar loolu tey boo ko doon xool ci taarixu islaam du yomb suñu boroom itam dellu wax ne ngir jikko ji rafet mu wax ne idfa billati hiya ahsan fa isa lesi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyun xamimun ne nit ki bu lañ defee ab safaan nanga ko fay aw yiw nee na su yàggee mooy tax lam doon def mu wëlbatiku mën a ànd ak yow te loolu ngën gi mi def daf cee def ay misaal yu bari ndax wax na ne am na soxna soo xam ne lu masaa buub ci këram ci buntu kër yonente bi alayhi salaatu salaam la koy xëpp ba yàlla dogal bis mu am ñetti fan gisu ko mu laaj ko ñu ne ko soxna si dafa tawat yonente bi salaatu salaam jóg dem di ko seeti ba mu demee mu xam ne kii mooy ngën ji mbindéef mu ne xam ne ne kii day jikkoom ji ma gis ci moom moo gën ñépp daal di nekk ab jullit kon nit ni nga bëgg nit ki mel ni daanaka jërut nga di ko wax waaye yow mel na rek soo ne melee ba yàggee dina xam ne ah, li wolof njaay wax ne ay la joo dégg aw ay di yéwén ay la joo dégg ak dëgg lay jëli waaye aw ay moom mënta yéwén waaye saa yoo dégg ñu ne ay la rek mooy xam ne ni kii lim nekk dëgg la ci moom teyit moo doon royukaay bu mag bi ba tey suñ boroom di wax ne jikko ji rafet képp koo xam ne yaa ngi koy jikkowoo mën naa sabab sa tàbbi àjjana te ragal naa ne tàbbi na moom fi la lépp yem ndax mooy xéwal gi nga xam ne ku fa dugg doo fa génn tey lépp loo soxla fa la lay fekk ndax àddina moom gannaaw kaso la ci ab dulit di àjjina ci yéefar te wax na ne sëriñ bi daal wax na àddina kaso cib ci jullit ak àjjana la ci bi yéefar nu ngeen koy firee ñu ne ko mbàkkee ni nga ko waxee rek mu ne li tax mu nekk àjjana ci bi yéefar mooy nit ku war a dem sawara lu mu daj ci àddina rek àjjana ci moom ndax la muy fekk ëllëg moo ko gën a métti mi ni ki war a dem àjjana itam lu mu dajal ci àddina gàllankoor la ci moom ndax la muy fekk ëllëg da koo gën a neex loolu moo tax kon loolu sunu borom nag wax ne wasaari'u ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawatu wal ardu aydat lil muttaqin mu wax ne na gaaw fi ne suñu boroom lépp lu lu baax boo xoolee ay alxuraan li ci ëpp day wax saarion wala saabixu mooy ña jëkkante waaye bu fekkee ne lu jëm ci àddina la day wax ne wamsi nanga dox waaye bu dee lu jëm ci lu baax day wax ne na ngeen jëkkante wala na ngeen gaaw wala na ngeen dox mu ne nag na gaaw jëkkante njëggal ak suñu borom mi nga xam ne comme fay fay la àjjana joo xam ne boo ko doon misaal dina toll ni àddina asamaan ak suuf kon xam nga ne àjjana yemut fenn loolu nag ku ko suñ boroom wax te àjjana xëy na boo ko doon misaal du neex a misaal ci ku fa demut waaye ragal naa ci àddina gii rek nga xam ni suñu boroom day wax ne boo duggee ci biir lépp yërmande la waaye boo duggee ci biti miir bi leen tàqale mbugale nga fa loolu boo ko doon xool ci àddina lu neex xam la ndax léeg-léeg di nga dugg ci saal boo xaay dañ koy si mu sedd lool waaye boo ne ubbet bunt bi rek bu la bu la ngelaw li duggee rek nga xam ne ñaari bari bi wuti na te li dox seen diggante mooy miir bi rek fii mu ne fii sax xañ na sedd na waaye fekk ne am na climatisé ba gën a sedd nga xam ne boo ubbee diggante fi ne néeg bi fi mu ne tey ak fii benn miir bi moo ci dox waaye boo ko ubbee da gis différence boo nekk sa biir néeg ba taasee safaas boo génnee ñi la sedd bi alawti ko kon nga xam ne suñu borom lépp lu misaal ci yomal xiyam ku am ak seetlu yaa ngi tàmbali di ko dund ndax dina wax ne booy jub ab dëkk la fa gën a yëkkatu ko moom ngay jëkk seen fi mu ne yomal xiyam mandarga yi ni ñu koy jubale moo tax la fa gën a yëkkatu moom ngay jëkk seen ngi mel ne booy dem Touba rek booy tollu Mbàkke da ngay daal di seen làmp faal ndax dafa gën a jëm kaw waaye misaal yi suñu borom joxe ci àjjana yépp wala bis képp ku am ak seetlu xam nga ne fi mu ne ñu ngi koy tàmbali di ko dund suñu borom nag ne àjjana jooju ñi ma ko déyal mooy ñi ma koy xaare mooy na mooy way ragal yàlla yi mu mel ni dañ ko laaj na ko ñan ñooy na mu ne allasiina yunfiquuna fi saraa'i wad daraa'i wal kaasimiina al xayfa wal aafina anin naas wallaahu yuhibbul muhsiniin mooy ñi nga xam ne dinañ jël seen alal di ko dundale ci yoonu yàlla ak ñi nga xam ne buñ meree duñ koy nëbb ba kenn du ko xam ak ñi nga xam ne ku leen tooñ ñu bal la te yàlla rekk tax mos na maa dégg sëñ Moustapha moom sëñ Abdul Xaadir yal na fi yàlla yàggal te wéral ko mu wax ne sëriñ Abdul Xaadir dafa mas di diglu rajo bi ñuy tàggee ñuy wax ba ne Mermoz sëñ bi ne ah dëkk booba day bu bari mbóote googu maanaam mer muus maanaam mer ba noppi muus xam nga loolu lu jafe la fi ne bala ngaa xam ni dëgg dëgg dëgg dëgg mu mer wala ak jaxasoo am foofu ngay xàmmee nit ñi waaye bu jàmm amee mënoo xam mënoo xam euh, nit ñi moo tax ñu ne bu ñëpp daanoo kenn du am ku leen yëkkati te loolu yaakaar naa buñ ci doon joxe misaal kenn ku ne xam ne ne Seydina Omar ku dëgëral la ci islaam ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam daana wax sax mu wax te bu alxuraan wàccee eh, la Seydina Omar wax da koy dëggal waaye loolu booba suñu borom dafay wane rek wane ne ku jiite mbooloo war ngaa mën a diisoo waaye yonente bi amut eh, dara ëmb ko waaye nag booba mi ngi ciy jàngale wane ne jiite mbooloo taxul nga eh, xam lépp wala nga akimoo lépp waaye gis nga ne li muy dëgër dëggal bi fi yonente bi salaam jógee dafa jaxasoo bi ne yonente bi jóge na fi mu ne ku ko waxati ma jël jaasi dagg sa boot kon kooku li mu doon dëgër dëgër bi bi problème amee jaxasoo na waaye bu ñëpp daanoon nag booba kan mooy taxawal islaam moo Seydina Omar man Seydina Abu Bakar man yaakaaran ne mu dafa nooy ba bu yónnente masaa wax lu masaa mu ànd gis nga bu ko ko yàlla naree samp moom la jël mbóot muy dëgër ga def ko Seydina Abu Bakar nu mu def dafa jóg taxaw ne képp ku daa jaamu Seydina Muhammad Seydina Muhammad jóge na képp ku daa jaamu yàlla nag yàlla mi ngi fi te du fi jóg Seydina Omar daal di xelam daal di ñëwaat nag daal di indi aaya ba nga xam ne moom la mu doon dëgër dëgër tey daanu na waaye obi Seydina Omar mi nga xam ne bu ñëpp daanoo kenn du la am yëkkati moom la mu doon nooy nooy ba mu naree jiite suñu borom dafa def ci moom ab secret moo tax jiit njiit itam yàlla moo koy sàmm moo tax yonente bi da ngeen topp si njiit lu mu leen digal donte sax lam leen digal demawut noona waaye bu ngeen ko warmaalee suñu borom dina wëlbatukaat mbir ba ba teg ko fa ko war a teg kon loolu ba tey am njàngat la kon aay yooyu ak aay yu mel noonu moom lan tàndan rek ngir indi ko xamle ne jéggale ak jikko ji rafet lu am solo ci nit la li ci topp mooy bu ñëwee ci xaddis ñu gis ci xaddis yu bari yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ciy wax ne jikko ji rafet mooy lépp ndax bokk na ci li wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaqi sun boroom dama yónni ngir ma mottali jikko yi rafet kon mel na ni jikko ji rafet naka jekk aman na fi lu jiitu yonent bi aman na ndax yonent yi fi jaar yépp jikko ji rafet leen doon jàngale waaye nag dina wax ne dafa mel ni ku doon tabax bâtiment tabax ko ba lépp noppi mu am ca benn birig bu ca manqué bi salaasam ñëwee nag doon birig booba ba mu ca duggee bâtiment ba lépp daal di mel nañ ko bëggee woon yonent bi nag alayhi ne ne man damaa ñëw ngir mottali jikko ji rafet kon nag loolu mu ñëw ngir mottali ko waxtu wu ne nun war nañ koy mën a xam ba man caa dox ndax nit ki lu mu xamut ngir mu jëfandikoo ko lu jafe ci moom lay nekk boo ci doon joxe misaal muy réew mi nu ne rek daanaka waxtu wu ne luwaa yi nga xam ne moom leen fi atte bépp luwaa buñ wax ci télé bi bu amatee jàmb danga naa lu gaa yi waxati faw nga dem ci commercialiste wala syndicaliste yi wala ñi nga xam ne daal ñoo lay dimbali ne ko lu gaa yi waxati ndax xam nga ne li ñuy yëkkati moom ah, amaan na mën naa baax ci waaye mën naa bañ a gën ci yow waaye lu mu ci na xew war nga ko mën a xam ba xam ba mën koo moytu kon itam ñun fekkee sallallahu alayhi mooy sunu yonent lépp loo xam ne bi ay jikku yu nu war a tàng ci moom war nañ koo mën a xam mën koo jëfe ndax jëfe ga njariñ la loo xam lay dellu si waaye moom ci moom mu dellu waxaat ci beneen addis ne ma min cheyin fi l misaani asxala min xusnil xuliq kenn ku ne xam ne ne yowmal xiyaam buñ fa demee nuy peese jëf yi mu ne nag buñ demee ba bay teg ci balaas yi ñu ne mboolem jëf yépp boo ko jëleen teg ko ci balaas jël jikko ji rafet teg ci balaas jikko ji rafet dina wot mbooleem jikko ya kon jikko ji rafet lu jar a jàng la ndax loolu suñ ko waxee julli mi ngi ci biir koor mi ngi ci biir natt asaka mi ngi ci biir aj màkka mi ngi ci biir yooyu yëpp jëf ju baax la waaye alayhi salaam nee na yooyu lépp tey bu ko nit ki jëfan ñu ko teg ko ci balaas gis koo xaye mësta aj màkka amutal lu mu génne asaka ak julleem itam xëy na melut na war a mel waaye nag jikkoom moo rafetan nee na buñ jëlee koo ko teg ko ci balaas mu wat ko ca des kon jikko ci rafet kon xam ngeen ne amut ab dayo moo tax mu ne maa min shay'in fil misaani asxala min xusnil xuluq mu dellu ñu laajaat ko ne ko alayhi salaatu salaam lan moo di ak mbaax mu ne al birru xusnul xuluq mbaax moo di jikko ci rafet ñu dellu ko laaj ne ko kan moo gën a mat ngëm yàlla ci yi mu ne akmalul mu'minina imaanan ahsanuhum axlaaqan ka gën a mat ngëm yàlla ci jullit yi mooy ki ci gën a rafet jikko ñu dellu laajaat ko ne ko sun boroom kan la gën a bëgg ci jaamam yi mu ne inna min ahabakum ilallaahi wa aqrabakum minni majlisan yawmal xiyaamati ahasinukum axlaaqan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ki yàlla gën a bëgg ci nun moo di ki ci gën a rafet jikko nee na itam bu demee ba yowmal xiyaam ña nga xam ne ñooy gën a siini kër mooy gën a jege kër yónnante bi mooy ña nga xam ne siin jikko dafa rafet te kenn ku ne xam na ne kër yonent bi ci digg àjjana jege ko bokkut ak yeneen kër ya li ñuy wax centro tey boo ko doon misaal lu mel ni Milan tey boo demee fu mel ni dóomu ak li ko wër mooy centro ba nga xam ne tey ci ci misaalu àddina rek tey bu ñuy jaay suuf di métrage la ñuy xool fu la gën a jege ci biir ville bi moo lay gën a seer ba ci wàll wàllu condominium yi sax da ciy feeñ da ciy feeñ ba ci wàllu kaaraange ba ci yu ci bari nga xam ne tey digg centre bi moom ci leen moom leen gën a fonk moom leen gën a taaral yonente bi nag sallallahu alayhi wasallam ne ne moom bu dëkkee foofa ëllëg ñëy lànga moom ay kër mooy ña nga xam ne ahsanukum axlaaqan tey boo ci doon joxe misaal suñ dëkk bu tedd ba Touba almukarrama dégg ngeen li ci Sëriñ Saali wax na wax ne ñi nga xam ne kër dafa jege jumaay ji ne ne lu leen ci fay waruñu koo mën a jaay ndax lan cee amee moo ëpp lañ koy jaaye kon jege jumaa yi Touba bokku teg sori ko kon ñi nga xam ne nag ëllëg ñooy encadré kër sëriñ kër sëriñ bi muy muy jumaay ji ëllëg ñi encadré yónnente bi sallallahu alayhi kon loolu kenn ku ne yaakaar naa ci nun bëgg nga caa bokk waaw lay tax na nga bokk ci neen xusnul xuluq mooy jikko ji rafet waxut julli gu bari waxut woor bari waxut aj màgg waaye dane xusnul xuluq kon xusnul xuluq kon kenn ku nekk ci nun ku ko xaman war nga ko gën a xam ku ko xamut itam war nga koo gëstu ba xam ko ndax benn daraja la woo xam ne bii képp ku ko am mën na le mbooleem tagg yi daje na ci yow ñu dellu waxaat ne ko ëllëg ñuy dugg àjjana ñu ciy ëpp mu ne an ak aksar maa yudxilil janna fa xaala taqwallaahi wasnul xuluq ne na àjjana boo limee ña fay dugg ña ëpp ca ña fay tàbbi mooy ñi nga xam ne ñoo seeni jikko dafa rafetan ci àddina kon ba tey gis ngeen jikko rafet dina dugal nit àjjana dina tax a jege yonente bi sallallahu alayhi wasallam dina tax say jëf sa balaas gaaw a daanu dina tax itam sëngëm yàlla yokk dina tax itam li yonente bi indi woon muy motte jikkoy rafet nga mën caa am cër boo xam ne bi amaan nag ku mel ni yow du ko ci am ñu del laaj laaj ne ko ndax jikko ji rafet nit ki mën na cee amee daraje yu kawe mu ne innal abda li yabluxo bi xosnil xulqihi asima darajaat wa sarafal manaasil wa innahu la la daifatun lil ibada kon li doon wax léegi dugg na ci biir yonente bi sallallahu alayhi dafa wax ne ab jullit mën naa am daraje ju kawe ëllëg yomal xiyaam te nee na la ko koy may mooy jikko ji rafet te fekk sax boo ko doon xool ne na ak jaamu yàllaam lu daif la mooy lu lu woyof la xañ na dina julli waxtu yu juróom waaye du ca dolli dara dina woor weeru koor waaye du ca dolli dara mbooleem yi yi ñu digle yépp daanaka mën na ne eh, nam ci war a mel melu ko na waaye nag jikkoom moo rafet ba tax ëllëg suñ borom boole ko ci ñi nga xam ne ñooy dëkk ak yonente bi kon loolu mooy xaddis yi nga xam ne bëgg nañ koo rotal eh, ngir rek gën cee firndeel li nga xam ne mooy jikko ci rafet kon li ci topp mooy ki nga xam ne nag moom mooy suñu yaakaar Cheikhul Khadim ñu ñëw ci mbindam moom nan la indee jikko ji rafet ak fan la ko teg loolu nag ragal naa ne liñ soxlu ci jikko ji rafet lépp suñ delloo ci nax ju xadaal xaaja mën nañ ne man ko mën nañ ko fekk ca biir ndax foofu nax ju gis ngeen ne loolu moo ko tax a jóg waaye foofu itam am na ab sew-sew bu ndaw rek bu ma ci bëgg a dolli te maa ngi ko dégg ci sëriñ xaadim loo ci waxtaan yi mu doon def bërki démb muy seetlu bu am solo ndax dafa wax ne bu jëkk bu nit masaa def ab safaan duñ ko naa xanaa jàngoo nax ju waaye léegi gis na ne sama kalaas gépp dañoo jàng nax ju ba noppi te taxut jikko yu mel na mu war a mel mu ne kon njàngin wi leen ko xoolaat ma xam ne wax na dëkk ndax mag ñi bari na ci ñoo xam ne bii nit ñi ñëpp bari na ñoo xaye eh, bu dee àll wa ju guddi rek am na ci ñoo xaye ñoo sut siine way ju àlluwa bu dee wërsëg am na ci ñoo xam ne ñoo sutan siine jur wërsëg waaye nag est-ce que mën leen mën nañ leen a dab ci jikko ju rafet ndax mag moo ci masaa gis lam daa dundal ci mbooloo diggante ay doomam ay jarbaatam ay dëkkandoom ay xaritam ak li koy ñëwal ci mbooloo nga xam ne mag mu ci ne këram daanaka ab wàccukaayu gan la daa doon ndax nit ñi kenn ku nekk ci nu jikko yooyu mi ngi ci yow ku ci góor góor ba am appartement bu baax rek jàpp nga ne am nga loo am daanaka gan ña gën a bari bu ñëwee mënoo mënoo wees saal ba nga leen di teg kooku kay xam nga ne mën na ne keroog parisolo jukko keroog parisolo ya rek moom bu dëlleet yaw tut kon nag mag ñi nag li suñ xaadim si loo wax ne jàng na nax ju ba noppi nag waaye nag est-ce que liñ soxlaan ci nax ji bi mi ci nun ne na kon nan xoolaat njàngin bi kon njàngin woo itam lu ñëpp na leen ko bokk xoolaat sëriñ Tuubaa nag dafa wax ne boo demee ci téeram boo mu tëjee al majmu al mustamila alal ajiba wal wasaaya nga xam ne téere bu bari ay njëriñ ndax wasaaya yu bari sëriñ bi fa la ko tënk mu ne wa saxa al awliyaay waasiliin maa wasuloo ilal ilaahi al bi kasrati al ka salaati wa xajjil baytillaahil wa zakaati bal wasuloo ilayhi bi riayati li jumlati al aadaabi inaaya wa bil muraaati laha zaadul wara laa idaamatil jidaali wal miraa kon li ñu doon wax léegi moom la sëriñ bi tënk foofu ndax dafa wax ne wér na ne mbooleem ñi egg ci suñu boroom eggiwun ci suñu boroom ci julli yu bari bi kasatil ahmal ci jëf ju bari lu mel ni ka salaat sëriñ Tuubaa nee na ñi egg ci yàlla eggi ni ci yàlla ci jëf ju bari lu mel ni julli wa xajjal baytillaahi ak añ màkka wa sakkaate wala génn asaka mu mel ni din ko laaj na ko kon nun mën a egg ci yàlla mu ne bal wasulu ilayhi bi muraati li jumlatil aada bi ne ne sàmmonteeg teggi ni boroom yi sàmmonteeg teggi dox sa diggante ak sa mbokkum jullit ne na lool si leen borom xool ba jaar leen ci ban mën a egg ci suñu borom kon nu xam ne teggin buñ ko waxee nag ñaari xaaj la sëriñ bi wax na ko ci téeram boobu di ma Masaalikul Jinaan teggin yi nga xam ne day dox diggante jaam bi ak boroomam waaye teggin ni nga xam ne itam day dox diggante doomu aadama bi ak moroomam doomu aadamam loolu it jullit bi day dugg ci biir waaye ku dul jullitam ku dul ab jullitam day dugg ci biir kon ni ñu war a jëflante suñu biir ci jikkoy rafet ñi nga xam ne itam bokkunu pas-pas noonu lañ war a jëflante ak ñoom ci jikko ji rafet kon bul ne kii rek ab tubaab walla wala gëmut yàlla ah wala ñuy tekki woon dara loolu waxi ku xamut la waaye ku tekkit dara moom amut te loolu bu ñëwee ba ci biir yaakaar naa seeñ bi dina ko am feneen fu mu koy leerale ndax day wax ne na ngay xool fi yàlla yi ngir këlin bind ndax kenn bindul dara ba noppi wëlbitu ko bañ ko kon nit ku lu mu indi këram rek ñor na ko bala ngoon nga xam nga dem ci kër tubaab yi ba gis seen dawkat yooyu ba nga bëgg leen teg lu yelluwut ak la nga leen war a teg kon di nga xam ne boo ànd nag sa doom sax jàpp ci loxo bi di nga xam ne sa doom jooje la muy neex neex ci yow seen dawkat yooyu leen gën a fonk kon sunu borom bindut lu mu bañ kon doomu aadama bu ci yàlla bind rek am na lu tax mu bind la kon nag na ngay warmaal doomu aadama yi ñëpp te yàlla tax kon sëriñ bi ne nag ne ñi egg ci yàlla ñi ngi egg ci suñu borom ci sàmmonteeg ay teggin waaye eggantiwu nag li idaamatil jidaali wal miraa yi ne ne lu mel ni werante lu mel ni tiisante lu mel ni eh, wax wax ju amul njariñ kon loolu itam ñi di ko bàyyi xel bu baax a baax mooy idaamatil jidaal wal miraa ñaari baat yooyu itam ñu koy bàyyi xel bu baax ndax eh, jëlale naa ñi nga xam ne sax nekkuñu ci barab yu mel nii waaye léeg-léeg itam barab yu mel nii sax da ciy feeñ ndax léeg-léeg nga dem ci kër sëñ Tuubaa yi wala ci daayira yi mujj sax yow bu fekkee ne nit ku nit ku daw sànq sa dund ga xaw a am ak tuum tuuti ndax te fay waxtaan li ci ëpp du ma ne du positif de waaye nag am na lu ko ëpp positif ndax wax na ne sëriñ bi daana woo mag ñi bu demee ba ngoon mën leen bu ngeen xëy ak léegi ñaati baat ngeen fi wax suñ ko waxee mën ne leen kon na ngeen def nangam ngeen kafaara ko nga gis ne da ci am kuy ñëw ne ko ñaati baat nga wax ci suba gi ci lu amul njëriñ mu ne ah, xanaa ku ma fi nuyu rek ne ma na nga def mën ko maa ngi fi na def maa ngi fi képp day jàpp ne loolu ëpp na mooy wax na ne mooy naar boobu ñëwoon ci sëriñ bi ne ko kay fa xaalu ko mu ne ko ali alhamdulilah mu laajaat ko sëriñ bi ne ko xaali tarku ma la yaani sun al mooy bàyyi lu nu amalul njëriñ kon moom jàmmante bu yàgg sax moom da koy tardeel jàmmante bu yàgg sax mu ne ko tarki tarku ma la yaani xaali tarku ma la yaani mooy sun al mooy bàyyi lu nu amalul njëriñ te loolu gis ngeen xaddis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam warat na ci ne min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaanihi bokk na ci liy rafetal jikkooy nit ki muy bàyyi lépp lu ko amalul njariñ ba tey bu ñu demee ci sëriñ bi bi muy tagg ngeen gi mbindéef gis ngeen li mu wax ci jës bu sëli ala xayri nabi xaadal wara bil adabi yaa man kafaani wadda bi bi jaayihi wa mi gis ngeen ni muy tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam da ne yow mi nga xam ne yaa om min mbindéef yi ñu ne ko ci lan leen moom mun bil adabi kon lin wax na léegi xaddis boobu sëriñ bi dëggalalaat na ko ndax wane ne yonente bi alayhi salaam lim fi indi lépp mi ngi ko teg rek ci ay teggin ba tey bu ñu demee ci njàngaleem sëriñ bi dinañ gis na ci taarix ñi ci ëpp bu nuy jàngalee yónnente bi sallallahu alayhi wasallam rawante lu jëm ci ak ganeem àddina fan koy tàmbalee day xóot day xóot lool ragal naa ni jàng arab yi gis nañ ko wala Seydina Muhammad la ñuy wax mi ngi ganee àddina wax ci ba wax ci lu xóot loo xam ne doon dem njàngale sax waaye gis ngeen Sëriñ Tuubaa moom bi muy tagg yónnente bi alayhi salaam rawante ne ci guddee gàmm gis ngeen fa mu ko tàmbalee laylatu mawludi nabi la wax laylatu maxi rée bi laylatu maxi temps bi watorisité assami bi xaar naja wal fara fa la tàmbalee mu wéy nga xam ne la ko jiitu lépp tudd ko te lim teewut boo toppee laylatu mawludi nabi lépp lu nu war a xam ci alayhi salaatu salaam indi na ko ci biir jës bu waaye nag gis ngeen teggin yi mu ko jaar nga xam ne njàngaleem Sëriñ Tuubaa moom dafa yëmut ak njàng gis nga laylatu mawludi nabi ñu ne ah mu ne laylatu maxi rée bi laylatu maxi temps bi watorisité assami tuur si te astum rek lépp a ngi luy far bàkkaar di dindi ñàqare ah. noonu la topp di ko tagg di ko tagg ba lépp loo bëgg xam ci moom mu xam nga ci moom kon nun teggin yi nga xam ne moom leen sëriñ bi di jàngal waxtu wu ne war nañ koy bàyyi xel ba tey bokk na ci biir eh, yónnente yi ci boppam gis ngeen ci Ahmad Suleymaan bi ko sëriñ bii leeral mooy wal anbiya wal mursalina maan taallamu minhu adabal ibadat ne ne bi yonente bi salaam def al isra wal miraj bi mu demee ci yonente bu mu jaar rek jàngaat nga ci yonente bi adaabal ibadat nga xam ne donte aman nan ko sax waaye dinañ xam ne kii li suñu borom dajalee ci moom nekkut ci ñoom ñu daat koy nungul moo tax ci gës ba tey sëriñ ne wax ne wabtadoo bil marhabi wa sahli wat taaddu bi wal bisri wa taxarru bi rabbihil muxadd bi mooy ñoom ñëpp bi ñu ko gisee dinoo xam ne diñu ko ne marhaban wa sahlan waaye nag ci biir yooyu nag bil adab diñu ko boo ay teggin yu mat sëkk kon boo gisee sa kilifa nga jox ko ab cër xam ne kii sa kilifa la mooy yonente yi li nekk nekk ay yonente bi gën ji mbindeef ñëwee cër bu mat sëkk lañ ko jox moo tax ñu ne nag teggin ak ab yar sëriñ bi daana wax ne e, tubaab yi silwise nan waaye laabun mu ne am na na ab yar waaye amuñu ay teggin mu ne li tax ñu ne civilisé leen mooy kenn ku ne xam ne ne tubaab dina këram day set léppam dina set waaye nag gannaaw boo tuuree ndox sax doo defaru kon laaboo moo tax mu ne civilisé leen waaye laabunu mu ne am nañ ay teggin am nañ ab yar waaye amuñu teggin fii mu ne ñoom seen kilifa ñëwee ñoom ñëpp dañuy jóg taxaw màggal ko waaye nag boo waxee lu lu lu d'accord dina ne c'est pas vrai noonu weeru du dëgg kan nun moo ñemee wax sa kilifa ne ko du dëgg kon am nan yar ci dinañ la warmaal waaye nag amuñu ay teggin ci ni ñuy teggee ndax sëriñ bi daal wax ne teggin du dara lu mbir mu ne nga tegg ko tegg dëgg ga ba li nga bëgg wax nga nit ki xam ko te doo jaar ci digg rek moo ay mbir mu ne nga fexe ba ka ngay wax mu xam la nga bëgg a wax te doo jaar ci digg ba mooy teggi teggin teggin mooy mbir mu ne nga teggi dëgg ga ba la nga bëgg wax ñu xam ko te doo jaar ci digg ba kon nag loolu muy njàngale moo xam ne kenn ku nekk ci noonu war na koy bàyyi xel moo tax ñu ne sëriñ bi mu fi nee baati safaan yi sax da ko daa moytu maa ngi dégg ci sëriñ Xalil Mbàkke moom sëriñ Moustapha Xabsa mu wax ne sëriñ bi bi mu nee njaareem dinoo mas di yooxu ab sàcc maanaam baat sàcc nag sëriñ bi da ko daa moom daaw ci jaar bi mu déggee ñuy cooli sëriñ bi ne loolu lan la mag ñi kenn mënta wax ñëw ci moom ngir wax ko lool am ku ñëw ba toll ak moom ne ko mbàkkee day dafa am ku romb yëfi jàmbur mayunu ko ca saraxoon ko ca mu doon ca sàkk ab yóbbal ñu du ko biddi li mu yokk ay jéegoom nga xam ne moom lim ko wax na ko ne kii dafa yomb waaw mu ne ko kii de dafa am ku yëfi jàmbur mayuñu ko ca saraxoon ko ca mu doon ca sàkk ab yóbbul ñu du ko bijji li mu yokk ay jéegoom <laughs> kon xam nga ne mooy mooy romb yu jàmm rek eh, jël ci am naa gaa yi sant Jóob la sëñ bi naa de waaye nag dégg ngeen di wax ne la ci sëñ Tuubaa teg lu jar a bàyyi xel la dafa wax ne moos mbooleem tere suñu borom yi noonu la mel ne ne képp ku koy jëfandikoo ku amut aw yoon sax ku amut ci aw yoon sax dina am ci yow aw yoon xam nga sàcc moom kenn la ngay sàcc waaye bu xasee diir moom ku ku ne sàcc baa ngoog rek boo ko jekkoo def ko loo ko war a def te yow sàccu la mu ne nag tere suñu borom yi moo mel noonu lépp lu nit ci jëfandikoo ku amul ci aw yoon sax maa ki xam ne yoon a wurtu na nekk ci yow day am ci aw yoon kon moo tax lu jar di maytu la muy tere yi loolu itam ñëpp ñu ci farlu ndax bàyyi gi suñ njariñ lay doon bul jàpp ne rek suñu borom gisu waaye lam lay jural ëllëg lam lay yàqal lu sew lay doon loo xam ne bii xëy na yow doo ko mën a doo ko mën waaye bu amee seetlu sa bopp sax yàlla seen di ko xam gis nga jaamu ko te yàlla dëgg dëgg dëgg lu ko dal mën na laa wax la ko teg lu ko dal rek mën naa wax la ko teg gis ngeen ci ni ko sëñ bi wax ci euh, Masaalikul Jinaan bi ki nga xam ne bi dafa ñàkk na jaamu yàlla juróom juróomi weer ñu laaj ko ne ko lu la ko teg mu ne dafa masa romb kuy jooy jaamu ko yàlla buy jooy mu wax am xelam ne ah kii day gistal rek suñu borom xañ ko juróomi weer mëntuta naatu la waaw ñun ñi nga xam ne nag ñun nit day wax ba noppi nga ne ah sa waa ji day wax li muy wax gëmu ci dara nga nga dégg kenn ko ne diw de nee nangamoon ah jikkoom la de ki wax ba ki wax ki nga xam ne moom moom moom mooy ndey mbili gi wax ba noppi nga ah sa waaye day rek waaye lay wax gëmu ci dara nga dégg sa moroom wax ci moom ne diw nee nangam rek ah jikkoom la de gisuma ko waaye xam naa ay waxam waaw xoolal lool kon yow ki nga xam ne nag moom daa wax ci xelam képp ne kii day sa nga xam ne jamono ji kon moom kenn mëntu ko firi ndax boo waxee sa bopp ne lii laa nar ñu ne da ngay wax rek bu keneen waxee ci yow nag ñu ne wax na dëgg ndax xam naa ne sa waa ji nàngam kon léegi day mel yow li ngay wax gëmatul la waaye li keneen di wax ci yow moom leen gën a gëm yooyu nag ay jikko yoo xam ne bii dàqonte na ak jikko ci rafet bokk na ci itam li gën a mittir jamono ji eh, mooy bu fekkee da ngay wax dëgg nekk nit ku wóor loo wax def ko wala wala sax loo wax li Sëriñ Seex Mbàkke wax ne bi ñu ko nee loo wax def ko mu ne déedéet du lu ma wax def ko waaye nag lu ma wax nar naa ko ndax wax def moom yàlla moo ko yor bu fekkee nag loo wax def ko ne uh sa la lu mu wax dina ko def bu fekkee nag loo wax tey mën caa génn comme suñu yeneen mbokk yi na uh sa daa yeewu de lu mu wax mën na caa génn xoola léegi li ñu jàpp yow mooy comme ni politiciens yi def nga xam ne yow moom dina wax ne politique dina wax ne yow yow miy wax ki ngay wax bu gëmee ne li ngay wax dëgg la yow mi wax yow xam nga su ko nag ñu ah sa waa ji mën naa politique ndax lu mu mën na caa génnaat déedéet loolu dugg yow ku yow dëgg mooy lu mu la wax yàlla rek moo ko mën a génn moo tax ñu ne suñu seex gay da koy wax mu ne sëriñ Touba bu ñuy wax bëgg àddina moom moo bëgg àddina ndax tubaab yi mu fi dajee leen wala sax sénégalais yi ci jamono jooja ñoom dinoo bëggan àddina doon ko sàkk ci tubaab yi sëriñ Touba nag du ko bëgg sàkk ko ci suñu borom moo tax bi ko suñu borom joxee mu ne suñu borom jox na ma njëriñal àddina ak alaaxira saa nafin bi daa de wallaahi nii wal xalqu tabauni fil bari wal bahri saa nafet bi laa dara kon mbir soo ko bëggee da xool fareen ba nekk nga far ko faa jëlee ndax boo ci jotee mooy tax dootoo ko ñàkk waaye feneen foo ko mën na jëlee ah euh, la si njëb laa rek nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam bokk suñu borom ne ko ñaari darajaa ngi nii abdullah bu la neexee ma def la ngay jaamu yàlla bu la neexee itam ma jox la nguur ak suñu borom bi mu ne ab teg ab diir ba si àgg mu ne ko jox ma ma def ma ma nekk abdullah mu ne ko loolu de moo gën ci ndax boo laa jël mulkullaahi da loo ci bëgg ci àddina dinaa la ko jox waaye bu ñu demee ba léegi de bu ne li ma neen mulk soo tàllee ci loxo bu ne li la waxee xaar doo ci fekk dara waaye abdullahi moom boo ko doonee mooy jaam bi gën a yegg suñu borom ëllëg ab jaam mën naa nekk ci kërëb sàngam ba mujj sax lépp lu ñu fay laajat ñu ne dama laaj ko sàng ba gis ngeen kuy liggéey ci kër ba mujj këri caabi bi sax soxnaas boroom kër bi sax dangay dem ba surga bi gën ko fa yey ndax léeg-léeg bëgg dara su bëgg néegi boo jaaru ci bëgg néeg bi doo ko mën a am te teewut soxna si ak doom yi ñoom ñoo gën a jege boroom kër gi waaye nag nungul mu nungul boroom kër gi ba mu nungi ko jox caabay kër gi nungi ko jox lépp kon nekk abdullahi nag mooy tax nit ki mën a nekk ba lépp lu mu bëggati suñu borom da koy daal di bërgël kon loolu yaakaar naa li ci sëñ Tuubaa def moom keneen dabate ko ci du yomb euh, teggin nag buñ ko doon wax buñ doon laaj ab àtteem ci nunu murit dañuy jàpp ne farata la ci nun farata la ci nun te loolu war nañ cee sant bu baax mag ñi ànd nag sëñ Tuubaa ndax boo xool nun dala nekk ci noonu mel na ni ñoom amuñu koon ngir ñoom sëriñ bi moo leen yaral boppam tarbiyee leen lépp lu war a nekk ci ñoom ñu def ko ci ñoom waaye dina wëlbatikuwaat demaat ci sëriñ bi ne ko bindal nu téere boo xam ne bii téere teggin lay doon ngir ñu mën cee jaar ba am ay teggin kon xam nga ñooñu nu seen bopp ndax ñoom ki doon joxe ay teggin moom lañ doon dundal muy sëriñ bu mag bi waaye teewut dinoo laajaat sakkuwaat ci moom mu bind téere boo xam ne bii dinañ ci mën a sukkandiku moo tax boo demee ci ci tàmbalee nax ji bi sëriñ bi dafa ne hansa wa innil yow ma suu ijaaba baadul muridiina sawil inaaba xat nas man xawaa ta adduban li yeta addabu zaaka wajaba nee na ñoom mag ñi dafa am ñu ñëw ci man sàkku ci man mu bindal leen téere boo xam ne téere teggeen lay tudd te ñoom kenn ku ne xam ne ne ah, li sëriñ bi bëggan ci ñoom daf koo def ci ñoom nee na loolu nag wasaaka wajaba kon loolu war na leen ci sant ndax amaan na buñ ko sàkku kon sëriñ bi sëriñ bi dafa tollan foo xam ne ci digganteem ak boromam nee na boo gisee mu bàyyi mbind lu jëmut yonente bi nee daa dem ba saa yu yëkkatee xalimaam yonente bi sallallahu alayhi wasallam day muuñ kon nag bu fekkee saa yu yëkkatee ci xalimaa kii jàpp ne moom ngay wax nee moo tax mujj lépp lu tagg yonente bi dootu ko bind kon nag bu fekkee bind lu mel ni nax ju te nee na loolu euh, lu war la kon sàkku ay teggin ñun ñëpp war nañ koo xam kon ragal naa ne nax ju bi Euh, ñun ñëpp war nañ koy jàng rawante ne xale yi ak mag ñi ñëpp ñu di ko jàng njàngam mag nag ak njàngam xale xaw naa waroo waaye nag njàngam mag li ci gën a am solo mooy ni ko sëriñ bi waxee mooy nga ànd ak ñoo xam ne xam nga ne ñii ñi ngi ci yoon wi nga di leen roy li ci des nag moom ay cours yu ay ay ay ay leçons yoo xam ne ay dars yoo xam ne xam naa dinañ ci gën a waxtaanaat ñu seet nuñ koy organiser ndax mag yi ci ëpp da nga koy wax muy dégg rawante na ay farataam ay sunnaam ni mu war a laabe ndax loolu boo demee ci téere sëriñ bi ci bari da ci def ci indi fi mu ne boo doon jàngale mel ni fiq sax di nga egg ci bunt yoo xam ne bu la nee boo fekkee ne jàngoo ko day jàpp sëriñ bi lii bind ko ndax xóot gu muy xóot waaye nag su ko bindee ñun ñii ñoo tax ba tey njariñal teggin ndax bu fekkee ne duñ ko wax nii rek bàyyi xañ na sax indi nañ ji lenn ci ay njëriñam waaye nag ni ko sëriñ bi indiwaate ci biir nax ji bi ndax nax ji boo koy xool day mel ni benn bunt la waaye ku am ak settantal boo demee ba ci biir ay bunti bunt la ndax day egg foo xam wax ab atteem egg foo xam ne day wax suturaalante egg foo day wax dimbalante egg foo xam ne day wax muñalante nga xam ne ci biir nax ju bi boo amee seetlu di nga xam ne ay bunt la donte sax sëñ bi moom du ko bind mu teglantoo waaye boo amee settantal fenn ci ne ndax loolu dafa bokk ci ak xereñ ak sëriñ bi sëriñ bi ne ne yaa taaliba rida yaa taaliba rida anil xalaaqi laasim bihi makaarimal axlaaqi fa bil makaarimi takunu taahira kama bihi taxlu dawaaman qaahira ne na yow mi nga xam ne yoway sàkku ngërëmal suñu borom na nga gaaw jëm ci jikko ju rafet ndax ne na ci jikko ju rafet ci ngay mën nekk nit ku laab te it ci jikko jëm rafet ci ngay mën a nekke nit ku kawe mu dee wax ne i'lam habanallah fi daarayni bi fadlihi subhanahu zu nuray subhanahu nuurayni bi anna xayra ma bi si daanal fata talaasumul adabi xaysu ata ne ne na nga xam ne yal na suñu borom defal xiiwal ci ñaari kër yi ne na waaye lépp lu nit kiy waaje ne na la ca gën ca wàccaay mooy jikko ji rafet kon nit ki mën naa solu yéru yu seer mën naa takk takkaay lu seer waaye lépp lu mu mën di yor yorut jikko ji rafet mën nañ ko boole ak la mu yor toroxal aliyaasu billaah maa ngi koy dégg siñ xalil loo muy wax ne da dégg ñu ne dama doon jaay abi ab xaalis dama doon jaay am am ma toroxal ko wala dama doon jaay ab judd wala dama doon jaay alal waaye dama doon jaay ayib yar ma toroxal ko kenn mënu ko dégg masu ko dégg kon yar ak teggin caabi la joo xam ne loo ko ubbee te jotoo ci da ko faa fekkut waaye loo ko loo ko ñoddee boo ko fekkee yaa ko moom kon sëñ Mudu Mustafaa daana ko wax daana wax ne doomu aadama yëpp mën na leen a sol ci menn mbedd ñu ne ko loolu nu mën a amee mën a meddam teraanga ndax gor soo teral yaa ko moom te gor soo xase moom loo bëgg ci moom mën nga ko am kon yarak teggin mag ñi lépp luñ daa wut ci leen ko daa wut bokk na ci sax li sëñ Muudu Moustapha nga xam ne ba tey ci mu njàngaleem wax na ne eh, ci jamono yi bi nuy yeesale yeesalaat jumaye jub Tuubaa dafa mas a yëkkati bi ba ci yàgg sa mu mel ni lu ko tegaat ci suuf bi ko tubaab bi laajee ne ko loo ci jubloon mu ne dafa am ci ay kilifaam xëy na ñu mu wóotale ak gisiin te daa bokk ci ñu suñuy aada suñuy sunu bi yar lépp lu suñu kilifa àndut ñu teg ko suuf waaye man génn bëgg rek laa am muy jumaay ji nga xool yooyu teggi ni mat nga xam ne moom daana wax ne baatin bi ko sëriñ bi bàyyee laalu ci dara lépp ci am xelam la koy doxalee daana wax ne itam ne sëriñ Tuubaa ma jur waaye nag man li ma gënal mooy ak njub nga xam ne jub googu siraatal mustaqima ci la mas a nekk ba jóge fi mas naa fee nit la yaakaar naa su ma juumut génn kilifa goo xam ne dafa wax ne dafa mas na am ak juyoo ci jamono yi eh, buur yi fi nekkan nee na bi ñu demee di leen àtte xëy na ki mu ko séqalan jàng na te moom xëy na jàngut te lan tudde am njàng ba ko kilifa ga nekkee ne ko yow bi nit ñuy jàng foo nekk mu ne ko boo man maa ngi jàng siraatal mustaqim maanaam maa ngi jàng ak jub xam nga nit ku lu mu jàng-jàng te jubut ki jàng ak jub moom fu ngeen daje rek yaa koy féete ko ndax bari na yàqu ci jamono ji kenn dina ñàkk jàng tax ndax defe na ci misaal ba tàyyi da ngay gis ko commerçant boo xam ne wala transporteur boo xam ne bi mi ngi ay ay fukki oto wala ñaar fukki oto te boo bindan aw turam jox ko du ko mën a liir nga dem lu mel ni satraag wala dem dikk ay cadre ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy yilif nga xam ne ni wut ay ñii français la ñuy jàng ñii jàng États-Unis jàng fu ne nga xam ne boo demee seen bureau yi danga naa ñii ñoo fi man te chaque jour nga dégg ñu ne société ba daanoon kon xaakaar naa bu fekkee ne am njàng kese la kon ku mel ne xëy na ay njàng-njàng yooyu siin commerce mën naa bañ a demee nañ ko bëggee kon satrak normalement wala dem dikk moo war a ne féete kaw ndax ay cadre rek ko séq waaye nag bu ko ak njub lalu di dem fenn ki nga xam ne nag daf koy toqantal ak njub mooy yara ko ca daara ja mu ñëw di commerce wala mu ñëw di nekk commerçant wala mu ñëw nekk transport benn dërëmam ba muy am muy doon ñaar muy doon ñett ba mujj nekk ay magasin tey Sénégal ñëpp ëpp xaalis ñu di leen tudd daanaka am na gëstu bu ci suñu am sa jaxate def bu xóot waaye ñëpp dafa ñëwaat murit te buñ ci doon wax rek ku mel ni sëriñ Mbubb muy Alaaji Baara Mbubb day na ci misaal te daara ja la yaroo fa leen ko defaree lépp bi mu ñëwee néew na société bu mel noonu nga xam ne tey ba fi sa waajur jógee ba nga ñëwee nga mën koo yokkaat ba lam fi bàyyeen kenn ku ne xam ne ne alhamdulilah yal na ko yàlla barkeel loolu nag ak jub rek moo ko mën a wuyu waaye yaakaar naa bu ko yeman rek ci jàngal ko rek comme xii la waxaale rek bañ koo jaarale fi ñu ko war a jaarale yaakaar naa tey résultat bii mu am dina jafe yooyu yëpp nag buñ koy joxe misaal muy pour mu jege suñu dégg rek ndax boo di indi saaba yaag ay man naa sori waaye njàngale moom mu ci gën a gaaw mooy li nga bëgg nit ki xam ko mu xam ko ci rek ba man caa xam fi muy tànkam ragal naa na moom moom mooy gën a gaaw ndax nekk fi indi ay addis yo ak ay kii boo naa sa waa ji mu doon jàng ak yooyu yëpp ragal naa ne am na lu ko gën fexe li nuy dund rek ñu xam ko xam ne lii mooy yoon wi nga xam ne bii lu mën a teg ba la yàggut ndax du démb tey la ñu mën nag suñu xel yi nga xam ne tey ñooy suñuy doom ak suñuy jarbaat ñu xamal leen ne lépp lu leen fu leen teg lu ngi nekk siraatal mustaqima ak am ak jub ëllëg dañuy sonal rek maa ngi koy dégg ci Baye Serigne Gueye muy wax ne am na fu mu doon liggéeyee tubaab ba da ko ne su fekkee ne da ngay wut ku lay liggéeyal na nga fexe ba mu nekk am murit dëkk Touba te na am soxna ne loolu la ko tubaab bi wax kon xam nga ne ñoom xam na ne ñett yooyu ku mu daje ci yow caaxaan wes na ci yow. di murit dëkk Touba yor ak njaboot xam ne responsabilité moom bi nga xam ne yow moom fii moom ñëwoo fi ngir fo ñëwoo fi ngir caaxaan mooy yàlla taxu laa wax kon nag jikko yooyu du lu ñuy wax rek mu benn ay léeb waaye lu am la fi mu ne jafe-jafe yi am ci réew mi at yi rek la commencé am te loolu boo xoolee ba tey li ñuy wax wut judd yi wala mujj ñëw yi xëy na am nañ ci responsabilité ndax ñi jëkk ñëw ñi ci ëpp dañ leen a jaarale ci ay daara tarbiyee leen tërbéyee leen ban ban xam liñ bëgg xam liñ bañ am mbañam rus ndax nit bu mbañam rus jógee ci moom rek léppam day jeex boobu na ci misaal am na ci ku wax benn kilifa gu ne fii xaalis bu bari la foren fii ci réew mi bi mu ko yottee carabinieri di ñu ko ne yow xanaa da ngay da mu ne ko déedéet man xaalis bi ma bëgg du bii man bi ma bëgg xaalis bu lew laa bëgg waaye bii xaalis taxumaa jóg xoolal jooj yooyu jikko tey loolu du luy lépp nuwaare gi la amee yàggut kon mag ñooñu xay dañ leen jaarale nag ci ay barab ban am bañam rus waaye ñi tey jii sëñ Maamoor wax na ko boo demee ci kaso yi daanaka tey la fa nekk ci ay sénégalais te leen fa yóbbu mooy jaay lu ñuy tere bu jëkk sénégalais benn problème rek la ma am mooy jaay fals tubaab yi sax dina ko daa seereel waaye nag buñ ko waxut tam lu bàyyi ko muy law rek xam na ne buñ ko yégee ak buñ ko yëgut ak sopp ko mi ngi am ak soppi ko mi ngi am soppi googu nag ragal naa barab yu mel nii mu gën a di yaatu dina ci baax waaye ba léegi boo xoolee tey bii ne bon sa daara ji ba nëgi ne boo xoolee ñi ñu ngi fi xamal rek daanaka ñu ci dolli ko bariwut ñi ci dolli ko bariwut kon faay yooyu nag ñun ñëpp war nañ ci taxaw di ci di ci wax di ci ci jëf ndax loolu su amul rek lu bari yàqu kon lii sëñ wax nag ne e, takkaay li gën ci nit ki mooy jikko ji rafet tey it jikko ji rafet sëriñ bi yëmut ci wax wax loolu sax waaye dafa ne li annahu bihi ila rahmaani yasilu abdan wa ilal jinaani ne jikko ji rafet dina eggale nit ci yàlla jikko ji rafet gi dina eggale nit na wa kullu man bi xayrihi wu sool li xadratillaay fa xumurun laa nabil ne ne képp koo xam ne yaa ngi bëgg egg ci péyëb suñu borom bi te jaarewoo ko ci jikko ji rafet ne ne ab dof nga boo xam ne amoo am xel xam nga nekk ab dof rek doy na waaye boole ci ñàkkam xel nag loolu moom eh, leneen la leneen la moo tax mu ne fa xumurun laa nabil mu kama yu xaribu ilal jinaan wa yujibul marxalatal jiraani kama yu baid anil niiraan ne na jikko ji rafet day leeral ab xol jikko ji rafet day tax nga jege àjjana jikko ji rafet day tax sa sag maas di la tagg jikko ji rafet day tax nga sori sawara kon yaakaar naa ne loolu sëriñ bi wax rek ci jikko ji rafet buñ ci yeman képp ragal naa ne jikko ji rafet day doy sëkk kon xam naa eh, dinañ indi ay misaal rek ci nag lan mooy jikko ji rafet mi yaakaar naa ne ar bi mi ngi sori waaw kon kon ba booba léegi kon ñi ngi wax ci njëriñi jikko ji rafet ku ko am ku ko ñàkk waaye nag lan mooy jikko ji rafet bari ci biir nax ju bi bu ñu ci demee sëriñ bi indi na ci yu bari xam naa lépp duñ ko mën a indi waaye din ciy tënk rekk loo xam ne buñ sukkandikoo dinañ ci mën a déggee lan mooy jikko ji rafet li ci jëkk nag mooy képp ku bëgg jikko ji rafet lan mooy tax mu yomb ci yow xam nga mbir mën nga ko bëgg diir jëm ca waaye nag boo ko jaaree ci yoon wa nga ko war a jaar mooy tax mu yomb mu ne nag bokk na ci li koy yombal wa min ta'addubika an la tanzura haqqan li nafsika ala shakhsin tara wa an tara annaka lasta mustahiq shay'an min at-ta'zim mi man qad yamiq bal i'tabir bi nafsikal aadaaba wala tutalliban bihil ashaaba sëriñ bi ne ne bokk na ci liy tax nit ki jikko ji rafet yomb ko mooy nga jàpp ne yow day yaa war a màggal ñépp waaye kenn war a laa màggal ndax nit ki bu jàppee ne képp koo gisee bu dee màgg nga ne wuu kii de moom a gën ndax xam naa ne li def ci wiiw ba mu yàggee liggéeyal suñu borom am na ngërëmal sëriñ Tuubaa wuu kii de moom du sama morom daan naa ko jàmm su fekkee moo la féete ak ndaw nga wu kii de li ma def ci bàkkaar ba ma juddoo léegi te moom gone la xam naa ay bàkkaar néewgut moo ma gën bu dee koo yemal nga naa ah, kii de moo ma gën a sàmm ñett ñëpp day dugg kon nga xam ne waxtu wu ne dangay ngay jàpp ne kii yaa ko ameel xaq waaye mu amul la benn xaq loolu soo ko defee rek ragal naa ne di nga mën a di nga war a wormaal ñëpp ndax sëñ Mudu Mustafaa daanaka wax ne ne képp koo gis na nga ko wormaal ne na bu dee boroomu melokaan maanaam bu dee ko am njariñ dina la jariñ su dee ko am ay lor dina la nëbb ay loram ndax nit ku lu mu wex wex wex ak lu mu kii gii boo ko wonee ay teggin rek dana ah yow daal xawma nu ma lay def rek naa la bàyyi nga dem su dee ko am njariñ nag ah yow day sëñ bi sa yar bii waaye nag baax na suñu borom de ko lebal di xam ne am nag fay bari nañu defaru tax fii ne la defar xamuñu ko waaye bari ñuy yàqoot te la ñuy yàq boo leen ko ko xam moo tax nag nit ki boo amee war ma ci képp koo gis ni ko sëñ waxee nga jàpp ne yow yaa war a warmaal ñëpp te kenn warul laa warmaal ragal naa ne di nga war a mën dëkk ak ñu bari moo tax mu ne wa annaka tara annaka lasta mustahiq maanaam yow mii daal amoo dara loo yelloo shay'an min at-ta'zim lu nekk ci yow lu nu war a màggal daal nga ne man daal sama jëmm ji lu luñ ci war a màggal ah xanaa li ma li ma nekk mbindeef comme yonente bi waaye bu dul loolu day gisuma ci sama bopp lu jar a màggal te képp koo gis nga màggal ne loolu de boo ko defee ne di nga amay teggin mu ne bal ixtabir nafsikal adaba ne na teggin itam ne na boo ci nekkee dangay xam ne lii dalaa war nga di ko def waaye nag wala taaliban bi asaba ne ne bu ci sax sàkku ay àndandoo maanaam lii day day lu ma war rek ma di ko def waaye bu ci sax wut ay àndandoo ndax wax na ne maam Cheikh Ibrahima Fall bokk na ci li tax ab liggéeyam gaaw ñetti at mooy moom bi mu ñëwee ci kër sëriñ bi bu ne yulub rek amutam am defut kenn muy am nawleem lu li bëgg rek du ko da koo jubal dàkk ko mu ñor ko ma ngi ci guddi ma ngi ci bëccëg ndax àndandoo yu bari sax dafa lay gàllankoor boo déggee mag ñi daan wax ne diw bu nee diw daa bëgg ak maas dinaa diw ku bëgg ak maas du baax mooy ku bëgg ak nawle fi mu ne baati wolof yooyu diñ koy woyofal waaye boo buñ delloo ci mag ñi ci yooyu da nga ciy jàngale bari bu ne diw dafa bëgg ak maas ñu ne ak kooku ndërta baax mooy nit ku bëgg ak morom foo ko fekk rek diw sama xarit la xam naa diw ma boo yooyu dalay gàllankoor sëriñ bi nag nee na bu fekkee da ngaa bëgg a nekk siraatal mustaqim am ak jub nee na sax bu ci xool koy àndal lii daal lu la war la nga nekk ci ba tey mu ne wakkun ma an naasi jami'an dahraka kama tuhib an ba tey bokk na ci liy yombal jikko ji mooy képp koy jëflanteel ngay jëflanteek moom ci jikko ci rafet loo xam ne lépp loo xam ne bu buñ la ko fayee du la neex nga bañ koo lebel moo tax mu ne wakkun ma an naas jami an la wax nag waxut mu mu'min waaye naas la wax mboolem nit ñi nit ku ne booy jëflante ak moom nga fexe ba la ngay jëflante moom mu doon loo xam ne bu la ko fayee ëllëg doo ci mer te ba tey bokk na ci li mu a wax léegi mooy am na sama bokk taali boo xam ne ñoo bokk kër waaye nee na moom fa muy liggéeyee tubaab yi doo koy wax ne ñoom bu ñu doon judduwaat ni moom la ñuy mel te teewut bu dee wërsëg ñoo këppale ndax ñoom ci ñoom lay liggéeye ñu di ko fay weer waaye gis nañ ci moom ak doylu gis nañ ci moom ab yar gis nañ ci moom fonk kàddoom gis nañ ci moom bañ ne soxlaal dara ban mujj xam ne kii day fan ko yare bokkut ak ñoom fi ñu sëriñ bi bi mu fii ne am na ko mës a ñëw ci sëriñ bi am ñum àndal ñooy ñëw di jébbalu ci sëriñ Tuubaa turu sax waxan nañ ma ko fi sëriñ bi ne ko sëriñ sëriñ bi ne ko ñii fi ñëw di jébbalu ci man lan nga leen wax ban ñëw di jébbalu ñooñe ci boppam ñoo ko tont ne ko moom mii de waxuñu dara waaye dina gis na fan nekk bu nuy julli moo nuy jëkk ca jàkka ja moo nu dàq saraxe moo nu lépp lu ñuy def lu baax moo nu ci jiitu te it moo nu gën jikko ñu xam ne kon fa mu jógee daraa nga fa moo tax ñoo bëgg laa jébbal suñu bopp suñ bi ne àkk saa noonu dalaa ko bëggee dee wane samay samay samay jikko ci seeni jëf waaye bu ko wane ci seeni melo wala seeni wax kon nit ki li muy jëf ci leen mën a nawee kan mooy sëñ Tuubaa kon ñun bu ñu bëggee wane sëñ Tuubaa duñ ko wane rek suñuy waxi kese wala suñuy mel waaye duñ koy suñ suñ suñ suñ saay ak suñu baatin dinañ fexe ba mu ba mu ànd ndax sëriñ bi bi muy ñaan ñaar yooyu la boole lii jàmmile na zahiri wa baatini bi taahiri nan nan rafetal saayir si ba ku nu gis daw jëm ci nun waaye du nu laabal baatin bi boo ko ñëw doo bëgg a dellu kon loolu bu àndee rek ragal naa ne nun njàngale mi nga xam ne war nañ koo def fii war naa gën a mën a gaaw ba tey bokk na ci li sëriñ bi wax ci li ko yombal mu ne irham oqiya jami al xalqi kullihim wansur ilayhim bi ayni lutfi wa safaqa waqir kabiruhum warxam saxiiruhum waraay fii kulli xalqin xaqa man xalaqa mooy li ma doon wax léegi nee na da ngay jëfanteeg mbooleem nit ñi ci bëtu ñeewant di war maal mag ñi di yërëm xale yi ndax mag eh, amaan na li tax nga war koo war maal da xam ne kii moo la jëkk ci àddina tey dina mag du yàlla waaye yàgg na ak yàlla kon si kilifa la xelet nga di ko yërëm xam ne daa xamut xale dafa xamut ndax mi ngi def lu bari yoo xam ne bu demee ba xam rek dina ko bàyyi ndax da dégg ñaare fi mu ne bala ngaa xam say say waajur li li li lin daj ci yow rek nga mooy nga dem ba ba am kër ba samp kër am ay soxna am ak njaboot nga xam ne yow ci biir njaboot gi sax boo waxee ba noppi ñoo koy weddi ci biir soxna yi ba waxee noppi ñoo koy wedd téewut yow yaa leen di dundal yaa leen di wodd yaa leen di lépp te taxut na nga bëgg ñu mel na boobaa da nga xam ne nag xëy ne yow nii nga jëfalante ak yow xëy na doon nga jëfante say waajur su ko defee booba di nga mën a gën a yërëm say waajur te waajur ak doom li tax ñu ne doom mënta dab àqi waajur fi mu ne sa waajur lu ne mën nga koo defal waaye nag ñaanoo yàlla mukk jiitu sa waajur waaye kenn ku ne fi mu ne sa doom yaa ngi ñaan bàyyi ko ginnaaw fi mu ne loolu rek kenn mënu koo fay ndax kenn ku ne boo sañeen boo fi jógee bàyyi fi sa njaboot kon loolu kenn mënu koo fay sa doom kon yow loo mën defal sa waajur it na xam ne dëboo ko ndax yaa ngi ñaan sa waajur jiitu la ba ba nga koy ñaanal te moom mi ngi ñaan itam jiitu la bàyyi la fi ba di nga koy ñaanal kon xaqi waajur kenn mënu koo dab ak yeneen yu saw yu nekk ci biir kon sëriñ bi nag lii mu wax mu ne kenn ko ne na nga yërëm gone di war maal mag te it ne na kenn ko ne ngay waraay fii kulli xalqin xaq man xalaqa kenn ku ne na ngay sàmm aqi ka bind bindee fi kon kenn ku ne ngay jàpp ne doomu aadama bi sunu boroom moo ko bind nga di ko sàmm su ko defee loolu bokk na ci li nga xam ne dina tax jikko ji rafet yomb na te it yaakaar naa ne eh, am na ku ko mas a wax daaray Milan ñuy waxtaan ci suñ biir mu ne ñun de war noo mën a nekk benn ndax tubaab yi de da nga ci gis ñaari tubaab yoo xam xañ na sax amuñu ak ak jaxasoo waaye buñ ko seetloo tey bu fekkee ne da gis ñaari tubaab yi ànd nag ñu yor ab dawkat maanaam ab xaj ci gàtt rek ngeen xam li may wax neen seen ñaari këlbu yi buñ dajee sax kenn ku ne da ngay daal taxaw temm rek da ngay taxaw loo doon def da nga koy bàyyi ba seen këlbu yooyu def leen bëgg a def ba noppi ku ne dem nga xam ne ñoom loolu buy nu seetlu di nga ko gis te ñoom xaj ne la si bëgg daje rek bu ko defee kenn ko da ngay gis mu yëgaat ci boppam loo xam ne yi te lu jiitu la amaana sax mosunoo séq dara gannaaw nag ñoom seen dawkat yooyu lan fonk kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo bokk sëriñ bi bokk lépp kon wax dëgg yàlla war na noo mën a suturaalante war na noo mën itam leen suñu biir moo tax suturaalante soosu sëriñ bi indi na ko ci biir naaj ju mu def ko ñaari xaaj ku jëkk bi mooy nit ki nan la mën a sàmme sa bopp maanaam sa jëmm sa bakkan nan nga ko mën a sàmme ba teggin yii nu doon wax léegi nga am ko mu ne bokk na ji mu ne usturu ba masta tanda bi sumtin mu ne ina fi sumti raxatan li sumut wajal sumta in ayita jawaaban rubba xawlin jawaabahu fi sukut ne na bokk na ci lii may ay teggin saxoo noppi sëriñ bi ne ne waxtu wun la waxee loo xam ne xëy na xamoo tontu la ne su boobaa da nga jël noppi def ko muy ton muy muy tontu ndax ne ne noppi am nooflaay la ci kiy dégg waaye itam boo jëlee noppi bari na wax joo xam ne bi tontoom mooy noppi moo tax rubba xawlin la wax fi mu ne du caagee nag lu la waaye wax rek nga tontu ko waaw si ñëpp laa daan wax ne kuy tooñ du mucc waaye nag kuy fay ak tooñ it doo noppalu rawatina suñu jamono ji moom kuy tooñ du mucc waaye kuy fay ak tooñ it du moo tax noonu rubba xawlin jaabuhu fi sukkut fii ne bare na loo xam ne bu la ko nit ki waxee sëggal jàll rek ree jàll ah sëñ bi yow da baax rek waaye est li nga wax noonu la demee waaye nag baax na daal bàyyi jëm bul tontu ndax wolof jaay nee na yàggudu saabu waaye dina fóot ah, yàggudu saabu waaye dina fóot nit ko ak lu la man di wax rek moom ah, sëggal jàll rek reyal jàll rek ndax soo fa jegee nag eh, bu bu ko bu ko bàyyi bi jàll téel danga koy téye boo eggee ba sa kër nag nga teg ko bu fekkee jikko ju baax la jun wax ci yow te nekkul ci yow boo amatee jàmm ne nekk ci bu def safaan la tam nekkan ci yow boo amatee jàmm mu jóge ci yow bu nekkutan ci yow itam nga fexe ba du nekk ci yaw kon nit ki li naa fii de ab ab xarit li muy bari bari ci njëriñ ci nit am noon mën na ko ëpp njariñ ci nit ndax barin ñoo xam ne tey siini noon ñoo tax ñu réussir ñoo tax ñu réussir kon loolu euh, ragal naa ne ni sëriñ bi wax ne bari na wax joo xam ne bi noppi mooy tontu la loolu war nañ ko mën a jàngat bu baax a rawatina suñ jamono jii ndax siñ saa Mbàkke yàlla na ko yàlla fayal wax na ne daana wax ne buñ masaa wax ne Sëriñ Saaliw moo wax nangam Sëriñ Saaliw moo wax nangam xam nga moom dafa nekk nit ku noppi te dal suñ ko ah siñ bi de war ngaa wax mu ne bu fekkee ne dina wax ne sëriñ bi mu wax nangam nga ne waxuma ko xam nga kon dina xam ne lii waxoo ko waaye nag est-ce que wax lépp kon loo wax ne waxuma ko rek de mel ne yaa ko wax ndax dina ah moom bi ñu ko waxee nangam kat ba mu ko ñoree wax ne ne waxu kon lii nag bu ci noppee rek moo ko wax waaye est-ce que yow li ñu lay wax lépp mën ngaa ne waxu moo ko nag boo boolee lépp maasale te classé ah bu yàggee nit ñi ci bopp na ah siñ bi dañu koy waaye xam ne ne lii moom duy waxam kon noonu la waaye fi mu nit ki li ñu lay wax lépp mënoo ne waxu moo ko te kon bu fekkee loo miim loo miimu dañuy jàpp ne yaa ko wax kon nag moo tax mu ne rubba xawalin jawaabuhu fi sukuut kon baat boobu rek yaakaar naa ne siñablaay euh, bu riis la ba rubba xawlin jawaabuhu fi sukut bari na wax joo xam ne tont la mooy noppi tontu la mooy noppi rawante ne suñ jamono yi nga xam ne médias yi ñoom kun bëgg a attaqué rek ci wax lan lay jaar gis nga ko ba suñ xalifa yeeg suñ kilifa yi wax wu ne ñu ngi leen du song waaye ku mel ni kii fii ne yal na fi yàlla yàggal moom gis ngeen ni muy doxee moom moom jëf ji àndut ak wax dalal naa ne doy na misaal doy na misaal ci ñu xam ne kii nu am jëfam ni ko suñu Muntaxaa di waxee yi Touba rek nee na bi mu ko songee jàppal na ne mënu cee dolli dara mu dolli ci jumaa jumaay Dakar ñuy wax mu indiwaat université ak yeneen liggéey yoo xam ne kenn mënu cee teg loxo te kenn déggul mu wax dara kenn déggul mu dem fenn kon xam nga ne moom jëfam moom moo moo moo moo firi waxam kon loolu itam war nañ cee mën a jànge mu ne bokk na ci ba tey nit ki li mën a suturaal boppam mooy mu ne wasbir alat sabbi wala jëpp ahad wa kun kama xaalal adib wala xat iset tasaabu ma takaasu bi min aqbil xisaali kat tadaaru bi sëriñ bi ne ne na ngeen di xasante ne bul tontu kenn ne na nga def la woykat ba waxan ne dafa romb ñiy wax ci moom walla ñuy wax ba tudd tur xay xay na ñoo bokk tur ma ñii damaa jàpp ne xëy na meneen Ibrahima la ñuy wax waaye du Ibrahima mii kon nit ki li wax na day dégg wax bu ne mbalaan la ko bëgg sàngool man kay du ma ko sàngool waaye boo ne ah man lay wax ndax xam naa ne lii ma di yaa tooñ bu tax ngay ko moomale sa bopp yow kay defal nii sëñ bi wax na ah sa waa ji naa waxuta nga ndax man lii de man du sama sama jigu moo tax mu ne eh, wasbir ala sabbi nit ki moom asgor moom faw muy muñ baatab ginnaaw asgor faw mu am baatam ginnaaw moo tax xam mu neex moo xam mu naqari moo tax mu ne wasbir ala sabbi nit ki day muñ aw ŋàññ mu ne walaa tujib ahad bul tontu kenn lu waay man de wax nee ko jërëjëf uhh, baax na jërëjëf mu ne wakkun kama xaalal adib wala xat mooy li ma doon wax léegi mu ne inat tasaabu bu ni ki xasante watta kaasi bu ak kenn ku ne di wutal sa di jiima eh, sosal sa morom lu ñaaw di teg ci ab deram loo xam ne yow mi koy wax sax xam nga ne du jikkoom ne loolu dafa bokk ci jikko yi gën a bon kon ragal naa ne bi ku sëriñ bi bind bu ñëwoon suñu jamono jii lay dina gën a yéeme rawante ne suñu mbokki média yi waxtu wu ne boo dee seetaan ci télévision yi wala ngay déglu journal yi gor su set wicc nekk fa baram di xamul lu dul jaamu yàlla ñu xëyee xëy teg ci moom loo xam ne boo ko déggee da ngay der sa gëymeñ loolu ragal naa ne jikko joo xam ne bi jikko gënu ko ñaaw ba ci xeeti théâtre yi nuy def dara gënu koo bon ndax bu fekkee da ngay théâtre di ko jëme ci imaam yi wala koy théâtre di ko jëmale ci jàngalekat alxuraan yi loolu mooy wane saa yu imaam taxawee ci sa kanam sa xel la muy jëkk a mooy théâtre ba nga doon seetaal est ce que lan doon wax ci imaam boobu nekkul ci imaam bi nekk sama kanam yàq na lu bari saa yu gisee teeb jàngalekat la sa xel jëkk dem mooy jàngalekat ba ma giseen ca théâtre ba muy def ab safaan wala ñu koy tuumal ab ndax bokkut ak yi léegi su ko defee yow sa doom sax nga yóbbu ko daara sax da koy xalaat te pourtant boo gisee benn jàngalekat gis nga fukki jàngalekat yoo xam ne bii melul eh, melunu na waaye teewul ñoom benn bi lañuy jël du ko médiatiser ba nga jàpp ne sax yow yow jàng sax alxuraan sax lu ëpp la te fekk boobu ñoom ñu koy def ak ñàkk xam la waaye kenn ku ne xam ne ne alxuraan moom fa mu nekk du fa jóge su ko dee bunt boobu itam bunt la boo xam ne bii bu xóot la te borom xam yi ñi ngi ciy wax ci télévision yi ak rajo yi waxtu wu ne ñu ngi ni attaqué waxtu wu ne ñu ngi indil ay film yoo xam ne buñ ci def attention mën naa yàq lu bare te xëy na ñi ci ëpp seen xel pour mu génne leen ci yu mel noonu dafay jafe te yàlla seere na buñ ci duggat mën na ci indi détails yu bari yoo xam ne film sàngam ban koy def nangam moo taxam théâtre sàngam nangam moo taxam bu ko defee yooyu yëpp mu doon gudd loo xam ne bi tey suñ ko bàyyee noonu nag mu dina yàqal itam te waxuñu ci itam bu yàggee itam xeex bi ñoom duñ koy gañee dañuy gañe marché bi dañuy gañe marché bi te buñ ko gañee lu baax ci noonu kon xëy na barab yu mel nii itam lu mel ni waxtaan yi war du yem ci lii ndax débat yi ñu war a dugg dafa bari ndax fekkee dina yor ak sunu njaboot war li ne teg kii yoon te waxtu na ñuy tibb di leen xëpp te li leen di xëpp lépp ñun jéem na koo dindi su yàggee lu bari day muuru te bu bari bu yàggee muuru ba bu yàggee dooto mën a xàmmee dëgg ak safaan ba kon moo tax sëriñ bi ne na moytu nag ci yu mel noonu yëpp ne na boo ko bëggee mucc nan koy moytu mu ne bokk na ci am ci suturaalante xam nga li mu doon wax léegi lépp mooy nit ki bu bëggee sàmm boppam waaye nag suturaalante suñu biir loolu daa bokk ci ay teggin te sëriñ bi indi na ko moo tax mu ne laatal tamis min uyubi naasi maa sataru fa yaxtika llaahu sitran an masaawika waskur mahaasine maa fihim isaa sukkiru wala taxib ahadan minhum bi ma fiika sëriñ bi na ni suturaalante ci suñ biir ne la bul lëñtu na nit ki li nga xam ne mooy jikkoom tam nekk ci moom mu di ko nëbbu ne na bu ko feeñal ne na waxtu woo xottee suturaas nit ne na suñu boroom ci boppam mooy xotti sa sutura te xam ngeen suñu borom yàlla bi billahi comme xotti suturaam dara du ko jar kon lii sëñ bi wax nag ne na na ngay suturaal jullit bi ne na lépp loo xam ne gis nga ko mu def ci ab safaan bu ko nettali lépp loo gis nag mu def ko ci ak mbaax su la neexee nga wax ko suñ jamono ji nag day mel ni liñ ci ëpp yàkkamti woon lu dul rek dégg nga sa waa ji defati nga ne lan mu jaar foo xam ne bii danaa duma ko wax sax waaye xam naa ne wax nga ko ba noppi sa waa ji de bu ne ah man wala ñëw ne yow sa mbokk yi nangam nga amul ah du ma ci sori sax ndax nit ak mbokkam waaye nangam xam nga ne kon moom ba nga ne sa mbokk yi nangam rek yàq nga la ba bari ndax moom xelam commencé nay ñaaw du ma ma dugg ci diggante waaye nangam dugg nga ci ba noppi bu ko defee yooyu yëpp nag sëriñ bi ne ne nit ki ayibam bu koy lëncu fii ba ci ba islaam sax si na mayu la nit ki li ne ci poosam wala nit ki li mu tëj ci néegam wala ci otaam fi mu ne islaam mayu nit ki mu di ko mu di ko lëñ ñu ne même ki nga xam ne day def ab safaan di ko nëbb sax islaam mayu duñ ko teg benn at ki ñuy mooy ku ku feeñ lu feeñ ba ci gis nga sax li ñuy wax ay njaalo yëpp bu ca dara feeñut dara waru ca kooka waaye bu ca lenn feeñee lu mën a teg loxo boobaa la ci islaam di am at kon nit ki dafa bëgg suturaat suñ biir mu ne waskur maxaasina maa fihim isa sakuru foofu lu jar a bàyyi xel ne nit ki suñ ko tuddee bu nee xam nga diwam nga ne ah diw de xam naa ko waaye su boobaa nee ne la nga xam ci lu baax ci moom na nga ko wax soo xamul lenn lu baax ci moom it nga ne ah moom de xam naa ne miinantewul da waaye ni ma ko gis de moom xam naa ne nit ku nit ku nit ku teeg njàmburam yem foofu ndax xañ na mënoo ko seereel ci moom ndax xamoo ci moom jikko te boo ko seereelee loo xam ne bi wóoru la amaan na bàkkaar mën laa jaa fekk waaye nag man nga ne xam naa ko waaye nag dinoo jaxasowut wala ah xam naa boo demoon ci diw de moom ma ko gën a miin yem foofu miin nit ku moom li naa bala ngaa mën a xam nit ki xëy na dangay jaxasoo moom waaye sëñ bi ne ne waskur maxaasina maa fihum isa sukiru ne na waxtu wuñ tuddee nit fi yow na xool la nga xam ci moom ci lu baax nga seereel ko te loo xam ci moom ci safaan bañ koo bañ koo tudd mu ne wala taxit ahadan minhum bi maa fiika nee na bul ayibal kenn mu dellu wax ne bu fekkee ne nag nit ki bëgg na diineem ñoŋ bëgg ngaa mucc bëgg ngaa am cër yu kawe ci suñ borom bëgg nga sab der ñoŋ nee na sa làmmiñ wi bu ci tudd ayibi kenn ndax na nga xam ne ni nga amee ni keneen ay ayib ba nga koy tudd yow it ni nga amee ayib te saa yow tuddee ayibi nit ki mu tudd sa ayib moo tax mu ne isaa sita an taxyaa wa diinuka saalim wa xassuka mawfuurun wa arduka saynun lisaanaka laa tasuk bihi awratan imrain fa innaka awratun wa linnaasi alsunun waaw ne na soo bëggee sa diine ñoŋ soo bëggee nga am cër yu am doole fa sun borom soo bëggee ñoŋal sab der nee na sa làmmiñ wii bu ci tudd ayib yi nit ndax kat na nga xam ne ni nga amee ayib ni amee ni keneen amee ayib ni nga amee ayib te ni nga amee aw làmmañ ba mën a tudd ayib nit ki nit ñit leen mën a amee aw làmmañ ba mën a tudd sa ayib mu ne wayin ab sarat ay naaka ayban fa xul laha fala tubsiri yaa ayn linnaas ayunun nee na sa bët saa yu juumee ba gis ab safaan na nga gaaw xamal ko ne ah gëmmal ndax ni nga amee ay bët ba mën a gis ay bi jàmbur nit ñi ñu leen amee ay bët ba mën a gis ayib ba tey bokk na ci sëriñ bi lim indi muy lu doon leeral léegi muy ay teggin ndax jàngale itam dafa am aw yoon mooy joxe ay teggin maanaam ki nga xam ne dafa bëggee joxe ay teggin ni war a mel loolot ba tey du noppi di ci joxe misaal lu mel ni léeg-léeg di nga gis ci suñ télévision yi koy jàngale koo xam ne di nga xam ne kii li muy jàngale doonte xam na xam-xam waaye di nga xam ne tegul ci teggin ay teggin lalu ko loolu ragal naa ne li naa al ishaara takfir aaxir junju doy na borom xel li may wax ragal naa ñu bari ci mbooloo xam nañu ko jàngale dafa am aw yoon rawante ne kilifa rawante ne ci jamono ji nga xam ne ci lan toll ndax fekkee nit ki danga koy jàngal ab télévision wala ci leneen mu wóor ko ne yow ki ngay jàngale mi ngi toog cib saalam toog ak doomam ak soxnaam ak ay jarbaatam am na noo xam ne boo ko ne bëggee jàngal yaa ngi indi ak lënt ndax wala fi dañuy wax ne waxtaan ñetti waxtaan am na waxtaanu biiram nekk am na waxtaanu ëtt am na waxtaanu pénc am na ñetti waxtaan yi nag boo ci jaawalee jafe-jafe mën naa ñëw ndax ki nga xam ne daa toog ci saalam ak ay doomam ak ay jarabaatam ak ay sëtam am na noo xam ne boo ko bëggee jàngal ci télévision indi ko lënt kon sëriñ bi nag nee na boo bëggee joxe ay teggin dafa am yoon wu mu xàll woo xam ne fa nga war a jaar mu ne bokk na ca wakkun minal axaar bi fukkun mu waqira wa xayrihim fukkun maanaas jamian fil xuluqil xasani yuhbibkal badien wa xasinil xuluqa bi taraxubi wa bi tawaddudi ilayhim tuxba bi wala yinil xawla li kulli naasin fa innahu min samin akyaasi fa axbaru bi anna nisfal aqali tawaddud linnaasi ansil fadli wa min saadil fata xaysu xasat an laa yarduhu faadu si rasat sëriñ bi ne ne képp ku la féete ak mag na nga ko warmaal moo xam say mbokk la moo xam say jege ñaa la te képp koo xam ne moo la féete ak mag ak ku man di doon na nga jikkawoo ak ñoom ji jikko bi rafet ne loolu soo ko defee suñu boroom dina la bëgg ne na da rafetal say jikko ñu mel din ko laaj ne ci nan nga ko mën a rafete mun a bit taraxo bi mooy ci bëgg bëggulu nit ñi nit ki dafa war a am itte xañ na sax euh, li ñuy wolof jaar yi wax ne am am matewut waaye nag itte moom mën naa matale xëy na wërsëg woo xam mën nga cee defal ñëpp moom yombut waaye nag koo gisit war nga ko mën a jox itte ba xam ne jox nga ko itte donte ci biir mbooloo la sax nga won ko noo xam ne siñ bi ne mbooloo may xat waaye won ko noo xam ne dina xam ne yow mii kat gis nga ko loolu dafa bokk itte moo tam bit taraxab bi wa bit wadd mooy sopp soppul nit ñi itam nit ki dafa war a waxtu wu ne ngay mel ni da ngay bëgg nit ñi ndax bëgg doomu aadama yàlla moo lay fay moo koy bind nit ñi mooy ñenn dañuy bee ci jamaal nga xam ne boo leen gisee da leen di xaw a mel ne lu doo leen ñimee loolu yàlla boo koy def ci nit waaye li gën daal mooy nga nekk nit koo xam ne bi nit ku am tawaadoo la nit di la ñimee te man di ñëw ci yow ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon te loolu du yàq dara nag ci sa li ñuy wax ci sa wegeel mooy nga respecte li nga war a nekk ci yow waaye nag bitta waddu di mooy ngay bëgg-bëggul nit ñi ilayhim nee na saa yoo bëggee bëgg bëgg-bëggul nit ñi nit ñi ci seen ñoo lay bëgg nit sax du wax ne diw damaa bañ waaye man nga ne diw da xañ na miinantuwun wala damaa jubuwut waaye waxtu wane yow fekkee saa yu fekkee ci mbooloo nuyu ko saa yu dajee moom jox ko ittee bu yàggee moom ci boppam mooy wëlbatiku xam ne kii kat xay na li mu foogan ci moom demewut noonu moom it day ko daal di nekk nit ku la bëgg mooy itam bokk na ci ay teggin ngay nooyal sa kàddu wala yinil xawla li kulli naasin mun dafa indihoo min séemel ndax bokk na ci jikkooy nit ñi am xel mooy képp koy waxal nga nooyal sa kàddu ndax wax na ne gis nga Seydina Moussa bi ko suñu borom yónnee ci Firawna Seydina muusa ab yónnente la te Firawna kenn du ko gën a wedd yàlla ndax egg na bay wax ne moom mooy suñu boroom te teewut suñu borom da ko ne boo demee booy wax ak moom danga nooyal sa kàddu mu ne sëriñ bi ne ne fa axbaru bi anna nisful aqli te waddudun lin naas an sil fadli sëriñ Tuubaa ne ne nit boo ko doon xaaj nee na genn wàll xel mooy bëgg-bëgg lu nit ñi xel boo xaajoon ci digg bi genn wàll bi mooy bëgg-bëgg lu nit ñi kon nit ñi suñu boroom dafa def ci ñoom loo xam ne faw ñu respecté leen faw ñu bëgg leen teen bokk na ci li sëñ bi digle itam muy dimbalante dimbalante itam daa bokk ci jikko yi rafet rawante ne fii jamono ji toll kon bu ñu ci ndax ju ba tey am na ci bunt boo xam ne sëriñ bi dimbalante la fay jàngale dimbalante nag ragal naa ne ci am murit war naa mën a yomb ndax sëriñ bi da wax ne waxi suma raama min ka fab sulhu maaraama bila siqaaxi wala takun awdu baxilan bil xotaam fiha si dunia fa toxsa bil xiyaam fa inna sar buxdi min wa min jamil xalqi baidun istain wa saahibu buxdi ila niiraani yoxaatu matrodal anil jiraani waak soo sax fi ma xiila kun saqiyan la takun baxilan sëriñ bi ne ne waxtu wu nit ñëwee ci yow ci sàkku ci yow nga dimbali ko nanga ko dimbali te suñ borom tax ndax ne kat bul nekk mukk poñetam àddina mi nga di ci nay ndax lool képp ku ko def ëllëg day waral yeddil fa suñ borom gis ngeen Sëriñ Tuubaa moom alali àddina waxtu wu ko daa wax du wax maal waaye ne xottaam lay wax xottaam ci arab mooy poñet mooy ñi ko xamul mooy matt mu ndaw moom nga xam ne boo doon taal matt mu mag matt yu ndaw yooyu ngay dajale pour mu mën a taal ngàññ mi loolu lay wax alxutaam ci arab sëriñ bi nag moom alali àddina gaaw gi mu gaaw mooy nga xam ne tàkk-tàkkam du yàgg moo tax waxtu ne moom xotaam la koy wooyee moo tax ne nag mën a na nekk nit ku am itte nit kuy dimbalee te bañ a nekk nit kuy nay ndax ne ne képp ko xam ne dafa nay day sori yàlla sori nit ñi sori àjjana Euh, dafa tabe day jege àjjana jege yàlla jege nit ñi kon loolu ragal naa ne doy na sëkk ci wàllu ndimbalante kon xam naa sëñ Alaaji dafay mel ni euh, nax ji bi moom bari na bari waaye koo xam ne soo ko bëgg na topp euh, dina xóot xam naa dina doon indi ay ay bunti rek su ko defee xëy na suñu borom mën naa dogal bu yeneen jataay amatee ñu man cee gën a jàngalante waaw su ko defee xam bokk na ci itam li sëñ bi digle mooy saw làmmañ itam nga di ko tàmmal lu baax mooy li wax ne waawit lisaan ak xawlal la dayri man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aw liyasmut kon xam naa foofu la ni tënkee bisimilah ñoo ngi fii taxaw ak sëñ Naar Nger du ñu doon ko laaj ba xam euh, ni nga xam ne noonu la ñu waajtaale waajale ndogu yi ak waaje conférence bi ban yëg-yëg yi ci am sëñ Naar auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke xaadim rasool barke xaside yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki taali yi ñoo ngi leen ñoo di leen ziar te di leen balax te di leen balax di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëriñ Sidi Maxtaar Mbàkke yal na fi yàgg lool te wér ci barke sëriñ Tuubaa xaside yi ah ñoo ngi sant bu baax suñu mbokki bi yi nga xëy nii mooy almuridiya tiw di télévision boo xëy télé xaadim rasool suñu mbokki taalibe yi nga xëy ñooñu seet si fii nga xëy ni ci daaray Tuubaa nooru daaray Touba Monza Ah, sëñ Manta Amar ñoo ngi lay ziar di ziar sëñ Mor Fall ak sëñ Baye Fall Thiam mi nga xëye moo jiite rajo Xassida Online di technicien bi ànd ak liggéey bi tey jii te liggéey boo xëye liggéey Seexul Xadim ak wàllu ndog yi nga xëye ci wàllu koor gi nan lañ koy defee ah ni ngeen ko jëlee ne nii lañ koy defee dimanche bu nekk am nañ conférence boo xëye dañu woo ku ñu dolli ci l'islam xamal na suñu diine ci li ñu xamul ci Seex Ahmad Bamba Xaadim Rasul defee ndogu yi ba heure bi jot rek képp koo xëy moom daal ngeen ko gisee ni lay demee toujours ñoo ngi sàkku nag ci yéen tam ngeen gën ñaanal ndax yéen ay doxukaay yu mat ngeen te ngeen fu sori te seen xam-xam li ñu xamul daal ci wàllu daara wàllu liggéey bi ñoo ngi sàkku ci yéen ngeen xamal na ko eh, ñaanal ñëpp rek di sant bu baax daal sëñ Manta jërëjëf sëñ Naar ñoo ngi lay sant bu baax ci kàddu yi ñoo ngi lay sant bu baax a baax ci turu almouridiya wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bisimilah barke borom kon ñoo ngi taxaw fii ak eh, jëwriñi daara ji di sëñ Pape ñu ko doon laaj moom eh, kàddoom yi mujj ak ak lan la ci mën a barkeelu ñoo ngi koy sant nag ci turu Almouridiyyah ci turu directeur sénéral bi ci eh, taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw tey jii ci jàppandal suñu lépp ci wàllu eh, eh, reportage yëpp daal jërëjëf si ñaan ñoo ngi lay. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant bu baax ñu ngi bëgg lool ci seen teewaay fii ci su ci daaray Touba Monza Nourou daaray nii wax dëgg yàlla suñu xool daa fees lool ba kàddu yi xam naa danañ lott ci yëkki ko ni mu ni mu yelle waaye nag eh, li ñu njëkk a def rek mooy sant mbooloo mii nga xame ne ñoom laan àndal liggéey bi Sëriñ Tuubaa bi ndax wax dëgg yàlla eh, dañ ñoo jiital waaye nag ñoom ñi kenn ci ñoom ku ne mënoon ngaa jiite liggéey bi gannaaw sant gi nga xamee ne amel nañ ko waa daara ji ñu ngi sant sëñ Ibrahima Ndiaye mi nga xame ne moom wax dëgg yàlla yàlla dafa def mu nekk kóllëre rek daara ji ba daaray Touba Monza di nooru daaray nii ba li nga nii mu nekk kole kole rek daara ji saa su ne lépp loo xam ne daara ji mu ngi ci fas na yéene ànd ceeg ñoon ci loolu di yëglu saa su ne it lépp lu daara ji ne mu yëg ko ngir ànd ci ak ñun bon nag ñoo ngi sant ñëpp ci turu daaray Touba Monza ñoo ngi sant sëriñ ji Njaay mi nga xamee ne moo jiitee njàngum alxuraan mi fii ak ñi nga xamee ne ñoom la ko àndal ñëpp xam naa ne wax ji comme ni ma ko tàmbalee rek wax dëgg yàlla li ñuy ñaan daal mooy ngeen ñaanal ñu léegi sëriñ Touba bi ñu nekk nii yàlla buñ ci gis suñ bopp ci leen ndax mbooloom mboolam Touba Monza bari na barewut waaye nag li fi nekk kus néew pësteef la ñuy doxee ba tax na xëj na lii ngeen fi fekk tey jii ba xëj na ñu bari ku dikk ci daara ji di law naw sunu liggéey pësteef bi ci mbooloo mii fi ne rek moo fi ne eh, li ñuy ñaan nag di ko ñaanlu yàlla nañ ci suñ Tuubaa dël ba njaboot jii nga xamee ne noog ñoomam bokk nekk ci ñoom ëllëg ñoom ñu gàddu liggéey bi ci suñu loxo ci ci gàdduñ woo xamee ne mooy gën a rafetati sax nii nga xamee ne moom lañ moom moom lañ yore liggéey bi comme niñ ko waxee rek suñ xool daa fees lool boo tax na kàdd yi xam naa ne du mën a matale waaye nag ñoo ngi sant bu baax di sant it eh, télévision Al Mouridiyyah ndax yaakaar naa ne yéen it ay seede ngeen ci liggéey sëñ Tuubaa bi nga xamee ne ñu ngi koy wéyal ci àddina bi yal na leen sëñ Tuubaa gën a dooleel nag ndax lii rek mooy réponse bi it lii rek mooy bi ndax réew mii nga xamee ne donc fii dundee eh, eh, média dafay am doole lool te eh, réew mën dëkk muy Sénégal média dafa bari am fa doole lool waaye média nag dafa bari te wuute lool yéen nag bokk ngeen ci ñi nga xamee ne yéen bay ci liggéey waxu du ma wax ma du ma sëriñ Tuubaa bi ndax mooy mooy lislaam rek yéen a ngi bay ci yoonu lislaam bi loo xamee ne wax dëgg yàlla képp ku leen di teewlu eh, dana gën a xam boppam bu baax ci liggéey sëriñ Tuubaa bi ñoo ngi leen di doolee sant bu baax a baax nag waaw ñoo ngi sant bu baax ci ci turu mbooloo mi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala asalaamaaleykum wa ñu ngi leen di nuyu di leen baal àq di leen balu àq ci weeru koor wi di ñaan yàlla sëñ Sidi Mokhtar Mbacke ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te te weeru koor gi liñ ci woor lépp suñu borom nangul ñu ko ci barke Serigne tuuba di wax nag ci turu Soxna Penda mooy jëwrin ji di wax si turam di wax ci turu daayira Soxna Jaara di sant di gërëm di leen ñaanal daayira bi macha allah xale yi jàmbaar lañ ñu ngi góorgóorlu. wax dëgg ñu ngi si liggéey maam soxna jaara beek sëriñ Touba di ñaan yàlla yokk ba ñu yokk ko ci barke sëriñ Touba si ñaanal suñu jëwrin sëñ Pape Diobine mu yàgg fi te wér yàlla yàggal ko si njaboot gi ndax wax dëgg yàlla doxin wi rafet na lool leen ñaanal sëriñ Touba yokk leen ñoom ñëpp ba ñu yokk ko ci sëriñ Touba ñaanal xale yi wér ak wér la jàmm xéewal ak sutura ak teraanga di ko yàgg koo def wax dëgg yàlla daara ji moom macha allah wax dëgg yàlla liggéey bi moom rafet na lool di leen ñaanal nag sëriñ Touba yokk leen ba ñu yëg ko di ñaanal jàmm leen ñaanal ay xeewal ci barke sëriñ Touba Mbacke. wax dëgg liñ koy defee nii rek ñoom lañ koy defe weeru koor wu joti tamit nii lañ koy defee wax dëgg yàlla di ci jàng suñu diine fii wax dëgg yàlla ustaas yi ñu ngi jàngale bu baax diine yi fii lu fi waay bëggut lu bu baax xamul rek danga koo bëggut a xam. waaye macha allah wax dëgg yàlla li sëñ bi jig la moom ñu ngi ci kawam moom wax dëgg yàlla yéen ñaanal yàlla yàggal leen fi rek sëñ weer wax dëgg yàlla ku fi ne moom boo bëggee xam sa diina mën nga koo xam ndax suba ngoon guddeeg bëccëg ñi ngi jàngale wax dëgg yàlla nag ñu ngi leen di ñaanal taxawaayu yàgg wax dëgg yàlla ñu dund ba ñun ñëpp nag ñu di ko defee Sénégal barke Sëriñ Tuubaa jërë leen jëf